bax ci bësu vendredi bi ko dom bi feeñ na donc diko annoncer euh, bu bax aussi que nit ñi nga xamne ño doon sétane jappalé ma ci bu bax aussi ci sarax bi donc ma leen di gërëm bu baax baaxa baax di leen wax ni tamit euh, Mohamed feeñ na donc euh, di ñaanal aussi yalla nako yalla may jamm may ko guddu fan aussi ba nga xamne tamit dina dem ba dimbale papaam aussi donc ma leen di gërëm di leen sant bu baax del ak yeen nak ci émission bobu gisane en direct la yeen fu mu tollu ni donc ma leen di gërëm bu baax di gërëm wa Castor wa parcel Assainies unité 1 ba unité 26 maa ngi di nuyu waa Wokam maa di nuyu bu baax waa Géejawaay aussi maa ngi di nuyu bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nekk tamit parcelle fële euh, unité 1 ba unité 26 di répété wat lolu euh, di nuyu tamit euh, mbokk yi nga xam tamit ñoo nekk waa Guñaay aussi HLM aussi maa ngi di nuyu ak wa Medina aussi donc di leen wax ni seen émission Bobo Guissané mo nekk ni ak yéen ci bésu dimanche bi donc 22h ba minuit incha ñu ngi jokkoo ak yéen donc di len wax ni tamit euh, di nuyu tamit mbokk yi nga xam te ñoo nekk ci hôpitaux yi aussi euh, nek malade aussi maa di ñaanal yalla yalla na yalla yëkkati euh, fëgg seen bopp ba ñu mëna dox si seen walu ay soxla donc di nuyu tamit mbokk yi nga xam te ñoo nekk ci prison yi aussi maa di ñaanal yalla yalla na len yalla génnee ñom ñëpp aussi ci carton yalla di nuyu tamit mbokk yi nga xam te ñooy seetaan aussi mooy téléspectateur fans yi aussi maa di nuyu bu baax di len wax ni ñu ngi déllu delluwaat ak yéen ci bésu dimanche bi donc képp koo xam ne aussi bëgg na dugg ci émission Bobo boobu gisaa en direct ak 88 628 71 71. 88 628 71 71. Donc, wax ne émission bien, comme émission Bobo Gisane en direct la qui fu dimanche bi di nuyu euh, téléspectateur yi bu baax a donc euh, di nuyu tamit mbokk aussi 88 628 71 71. Gearing luggage up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me. Cause shit ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin this chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stun. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Uh, I try to stay out your business but on the real, you're so obvious. And if you keep fitting me in your plans of fucking up, your man's gonna get on us. That white sand surrounding us. He be. baax aussi euh, ci euh, problème technique bi ñu am légui donc euh, di delluwaat ak yeen di leen wax ni émission bobu gissane en direct la yeen fu mu tollu ni ci 88 628 71 71 allô allô malikum salam. Wa waaw na bi señ bi. alhamdulilah ñu ngi fi rek naka yaram bi. may ma tiré carte hein allo sëñ bi. waaw excuse donc li njëkk a feeñ aussi mooy yaakaar yaakaar jigu la daal. lépp looy dugg aussi mën naa ne lu lay bett lay doon wala te mu nekk daal loo xam ne lépp luy ñëw lu lay bett lay doon. nee nag ci biir loolu aussi foofu war nga génnee foofu sarax nga def ko parce que gis naa ni temps yi aussi au niveau ci côté lu ñuy wax xaalis gis naa des fois dafay mel ni lu xaw a dëgër ci yow. voilà neen nag foofu da ngay génnee sarax bi nga xam ne soo ko defee incha allah yàlla mën na ci def ndam nga jot xaalis boobu da ngay génnee ñetti litre meew rek ngay génnee. ñetti litre meew. waaw euh, lait bridel quoi. Mm-hmm. waaw ak 21 euh, morceaux de sucre. plus 21 morceaux de sucre. Mm-hmm. plus 21 dattes. Mhm. wala mom ngay jël rek nga boole lépp nga tar ci fatia ben yoon nga ñaan ci sa soxla yépp après nga jox ko ko xamné ne aussi na nekk un vieux mhm. wala nga jox ko ben pa buy dox ci yoon wala ku tok mhm. inshallah allah nee na yow sa mbir aussi au niveau euh, ci walu li wax yaram des fois fay melni dal da fay metti sa yaram bi amna fuy metti de wala fu doon metti ah, wala yaram bi moy metti wala yaram bi yépp moy metti waaw yaram <laughs> parce que ni mu ko gisee daal dafa mel ni daal yaram bii mooy metti de donc loolu aussi pour mu dañ euh, demoon nga ci hôpital. Hmm, waaw. voilà donc normalement waroon nañ la ci wax li nga xam ne mooy metti yaram bi de. wax nañ la ko. waaw nee na nag ci biir loolu foofu tamit euh, soo defee sarax baax na mais nag li ma gën gënaloon mooy nga demoon hôpital daal. voilà nee il faut nga dem parce que dafa mel ni côté ndig li day metti côté deun bi day metti presque yaram bi yëpp dal mu melni ni bo bo amé dal voilà choono bu nek du dess sa yaram voilà ah. nee so mu né génné sa ben yére nga saraxé ko ensemble nga jox ko ko xamné mu mën dara jotu ko nga jox ko ko voilà nee na inshallah soko défé dina bax trop deng couleur bu marron bi moom da nga ko sol wala dafa nekk sa wet. voilà marron bi am na lu muy signifier ci yow mooy danga nekk nit koo xam ne aussi mën naa lépp lu la dal aussi presque mën naa ne ñemewoo daal. da mel ni ku xaw a ragal ci sa wàllu yaram bëggoo dara metti la daal. lépp lu la dal daal dangay ngay xaw a ragal ko ngay mel ni daal da ngay ragal ci wàllu boobu. voilà mais nag man li ma gis aussi euh, soo defee yére bi nga sacrifié ko jox ko benn euh, un vieux nga jox ko ko incha allah di nga gis tane de di nga gis daal yaram bi dina féex daal ci kàttanu yàlla dégg nga voilà léegi tamit mu def tamit euh, au niveau ci côté njaboot su nekkee am nga doom bu góor wala ay doom yu góor mën nga ma ko wax aussi parce que daf fi feeñ. waaw waaw am naa doom yu góor. amoo ku tudd Mouhamed wala tour boo xam ne daal kawe na. waaw waaw Mohamed voilà donc moom ci boppam su nekkee ñaar lañu wala ñett lañu wutal leen la mu xaalis. waaw incha la ah, mu xaalis moom c'est forcé nga utal leen ko mais dañ koy def euh, ci main droite bi quoi la main droite. d'accord bon nee na nag yow da nga nekk nit koo xam ne aussi mën naa ne sa liggéey yaatu na. Mm-hmm. waaw mais liggéey la boo xam ne aussi mën naa ne des fois da nga ciy am ay tolof tolof c'est-à-dire da ciy am coono bu bëri. te mun naa ne tamit responsable nga daal ci fi ngay liggéeyee wala nga nekk fa kilifa. voilà nee na nag ci biir loolu lenn nag moom a xaw a jaaxal wàllu terrain bi wala kër gi nga xam ne dafa taxaw ba noppi wala wàllu terrain. Mhm. waaw loolu danga ko am ba noppi. waaw. terrain la wala kër. voilà nee na nag macha allah su nekkee noonu la aussi nee na baax na mais li ma ci xaw a jaaxal aussi mooy di nga amaat terrain parce que dafa wan ne dina amaat terrain yoo xam di nga ci taxaw wala ci mbirum terrain. incha allah na nag foofu dafay def sarax boo xam ne war nga ko génne mooy un kilo de banane. un kilo de banane da nga koy jël nga ñaan ci yàlla nga jox ko koo xam ne aussi na nekk un vieux mën nga ko jox benn vieux bi rek yére bi ah benn euh, un kilo de banane nga jox ko ko kooku su préférence sax soo ko mënee def dès lundi comme demain incha allah soo ko defee aussi yàlla waaw demain matin incha allah nga def ko te puis tamit euh, lu mel ni wàllu oto bi nag tamit won na ma lu mel ni oto oto boobu yaa ko moomoon waaw oto bi xawuloon paan tuuti wala mu mel ni jeng mu jeng tuuti waaw paanoon naa. mais di nga amaat beneen de. Hmm. incha allah di nga amaat beneen. parce que gis naa sa xel mu ngi ci. mais problème bi mooy liggéey bi moo xaw a wàññeeku tuuti par rapport ak ni mu doon doxee. voilà donc loolu aussi feeñ na ana jigéen bi nga xam ne dafa ub sa bopp lool. waaw kooku dafa ub sa bopp am na côté boo xam ne sax gis naa ni san ne va pas du tout mën na nekk au niveau nga baal ma ci wax bi mën na nekk tamit soit ñàkk gisee lay doon wala tamit ñàkk gisee parce que noonu laa la ko mën a waxee quoi pour nga comprendre moom dafa dem waaw kon ñàkk gise bi benn naa ngi noonu ak ñàkk gise encore donc deux ñàkk gise laa gis léegi foofu nag yooyu yaay comprendre soo comprendre aussi mën naa la ko wax waaw comme voilà très bien donc ñaari côté yooyu des fois dafay xaw sa bopp. te sa xol aussi neexul dara. voilà donc naqaru xol aussi mën na la indil ay feebar parce que da nga nekk euh, kilifa boo xam ne mun naa ne antanoo dara aussi lépp loo xam ne daal lu ñaaw la walla loo xam ne daal dafay mel ni daal dafa lay jàpp catégoriquement au niveau même sa wàllu yaram. voilà donc loolu aussi feeñ té da nga nek nak nit ko xamné aussi da nga am fulle ci sa walu acte acte yi ngay def yépp wàllu fulle la donc da nga direct ba mu ëpp dal voilà donc loolu aussi feeñ na couleur rouge bi est-ce que mën nga mako déranger tuuti mu génn fofu wala nga pousse ko. waaw déplacé wu voilà parce que dafa nekkoon sa wétan hein? waaw voilà légui tamit mu def tamit euh, tour bo xamné ne euh, xaw ndax xam nga ko mais ku tuddu Babacar wala Ababacar. waaw xam na daal. bëri na mais ki nga xam ne daal mun naa ne proche na la daal kooku laay waxal daal su nekkee am na rek danga may ne am na. te kooku tamit jàpp ko su nekkee xam nga ko parce que nit ku baax la dégg mais na yow toujours góor ñi ñoo lay wor. góor ñi ñoo ah. dëgg la. ah. waaw loolu am na. ah. loolu laa gis de góor boo jokkool ci wàllu liggéey walla ci wàllu affaire xam-xam mun naa ne yow yaay dem ba ci biir yow yaa ciy génnaat. dëgg la moo voilà donc moo tax tamit foofu aussi maa lay euh, prévenir aussi walla di di la wax ni na nga moytu di euh, di duggante ñoo xam ne aussi mun naa ne mun nañ la yàqal. ah moom daal góor ñi parce que lépp looy def aussi mun naa ne ci cadre liggéey soo ci duggante ak ñoom aussi ñu ci ëpp aussi dañuy nekk ñoo xam ne dañu lay trahir.

waaw baax na ba léegi mais su nekkoon bu la moom dama lay ne nga dindi ko. bu nekkoon bu bleu. waaw damay nekkoon boobu baaxul ci yow marron bi daal moo gën a baax ci yow daal wala mu lëndëm tuuti. marron bi waaw daal de préférence boobu moo gën ko que bu ñuul bi. voilà boobu bu marron bi daal ngay ut parce que boobu mooy nekk loo xam ne couleur de préférence yow boo xam ne dina la jikk. bon léegi tamit mu def tamit euh, nit nga tamit boo xam ne daawoon nga dimbali ay nit mais da nga dem ba ci biir nga mel ni ku réservé wu léegi. waaw comme côté mbokk yeeg côté ñi la jege yeek ñoom ñëpp daal dafa dem ba ci biir daal da nga jàpp sa ñàmbur. waaw dañ voilà très bien donc loolu la ma wax nag nee na nag ci biir loolu aussi il faut nga moytuwaat daal parce que gis naa daal képp koo nekkal ci côté góor. Euh, du baax. donc loolu la daal moo tax tamit da ngay dem ba des fois sax da ngay mel ni comme exemple da ngay daanu ci sa liggéey walla tamit euh, nga am ay rabaissement wala tamit nga dem ba ci biir daal nga gis lépp mel ni lu taxaw voilà donc foofu tamit euh, dafa def sarax boo xam ne war nga ci jóg nga def ko mooy saraxu xar ah def nga ko man benn melo bu weex lay doon da nga koy yar de su nekkee am nga espace mën nga ko yar waaw am naa benn bon voilà melo bu weex la Wala voilà inshallah allah na xar bobu dal mën na né sax mo gën sarax yi nga xamné mom la lay jox ni mais dal defal sarax xar bi rek nga top bu baax nee na soo aussi dina la dimbali bu baax inshallah allah tam mu def tamit ay rêve yoy faral di def ay gënt mais gënt yi day anondine yenn saa mu nekk gént yu dëgg yenn saa mu nekk tam gënt yo xamné do ko mëna japp voilà donc euh, xawma nak lan nga mujjé gënt su ko tamit so mako dina la wax li ni muy démé wala ma fireel lako waaw bi ma mujjee gént moom ay xam nga ànd ak ay ànd ak jigéen daal. ànd ak jigéen. waaw. jigéen bu mag wala xale. bu mag bi. bu mag. voilà loolu mbirum rab la rek ñëpp am rab daal. Hmm? rab la rab rab. waaw ah, d'accord. voilà loolu mbirum rab la quoi parce que euh, rab nag bari na façon ah na tamit euh, ku nekk ak ñëpp am rab. mais je vois que des fois rab boobu aussi daf lay sonal. loolu mooy indi de fois tamit doo déggoo ak ki ngay nekkal wala ki nga xam ne moom nga nekkaloon donc toujours day am benn entrave day am benn affaire boo xam ne day nekk seen diggante ba yow sa boobu doo comprendre lan la foofu nag rab boobu tamit euh, lu ñuy faj la wala lu ñuy écarter la donc euh, kenn mënul faj rab bu mu wër mais quand soo ci jógee aussi mën na def écart ba nga xam ne mën naa ne ci nga ànd sa sago daal ci affaire bi nga xam ne moom nga bëgg ah, voilà donc foofu nag il faut nga jóg si nga dem ci marabu yi les marabu uh-huh. ñoom tamit mën nañ lool seen domaine la am na ci ñoo xam ne yàlla may na leen kooku tamit soo ci demee yàlla dina la dimbali bu baax quoi parce que tant loolu tamit dindiwoo ko wala mu écarté wu toujours lépp loolu laal da gis mu dëgër. Mm-hmm. àndandoo la daal. Ah, àndandoo la pour preuve aussi li mu lay wax tamit dëgg la yaa ngi couleur bu may gis foofu bu weex tàll wala lu mel ni lu weex. man ko sol. ah da ko sol. voilà donc lu weex li mooy preuve bi mooy wane ni carrément li mu lay wax tamit du dëggu la. donc lu weex loolu aussi am na lu muy signifier ci yow mooy lépp looy def lu wàllu réunion wala wàllu jotaay wala loo xam ne daal mun naa ne mën nga ci am ndam del sol lu weex de nga waaw ah, incha allah de préférence sax soo munee génnee trois mbaxane yu weex mooy mbaxane coppite yi soo ko mënee génnee nga sarax ko ñoo xam ne aussi ñuy dugg ci jàkk la nee na loolu aussi baax na trop nga xool ñi nga xam ne ñoo ci gën a mag nga jox leen ko. waaw incha mais na nekk ay mbaxane yu weex. d'accord. donc, dégg So, soo defee loolu di nga am changement de boy, am bu brusque sax bon mois bi gën favorable ci yow ñetti mois yi naa la ko jox hein? janvier février mars. ah d'accord. Ah, ñetti mois yi d'al, so, xoolee sax mois de cible cible la ci yow quoi janvier février mars. d'accord voilà donc euh, ay mois la yo xam ne daal mun naa dañ mais ay ce sont des mois de chance en même temps aussi mois de bénéfique aussi da nga am loo xam ne daal lu lay bett incha allah dégg nga waaw voyage bi da ko arrêté woon amoon na voyage yoo doon dem quoi mais dafa mel ni dafa taxaw dama ko arrêté woon kay voilà donc euh, di ko reprendre at nag ci kàttanu yàlla mais il faut yaram bi tane benn yoon en même temps aussi il faut tamit rab bi bàyyi la pour loolu mën a évoluer bu baax hmm. waaw donc euh, di ko reprendre at mais quand même foofu il faut nga defar yaram bi daal. il faut ma defar yoon bi. waaw il faut nga defar sa yaram c'est-à-dire faj sa yaram bi quoi comme ni nga feebaree benn ak rab bi aussi lim la dal aussi donc yooyu ay facteurs la yoo xam ne waroo ko minimiser. d'accord voilà donc yooyu soo ko kiiwee rek après automatiquement da ngay gis tamit mi dangay reprendre même chose même acte yi nga doon def dans le passé dina ñëwaat. d'accord voilà donc incha allah loolu tamit wane na ko. d'accord d'accord incha allah euh, mois de décembre du dara ci yow. mois waaw. Ah. amoo ci doom bu ci juddu. déedéet. mois de décembre kon jàpp ko bu baaxam uh-huh. xaw ma nag mois la boo xam ne dafa ma won daal mois la boo xam ne daal am na muy représenté ci yow de. Uh-huh. walla wala lu marque daal ci benn marque événement boo xam ne amoon na si si yow. loolu tamit wane na ko ci mois de décembre. dëgg la voyage boo ci demoon comme noonu daal. dëgg la dëgg la dëgg la. donc loolu tamit won na ma ko. voilà donc euh, kon maa lay gërëm di la sant. kii dafa amoon benn ku koo xam ne daal xale bu jigéen boo xam ne mm-hmm. daal. mais mu daal ndax. teel ma xool la ko. allo sëñ bi. waaw xale bu jigéen boobu nga baal ma nag ci wax bi parce que dafa mel ni daal euh, macha allah moom tamit topp na la yow tamit bëgg nga ko n'est-ce waaw lu mel ni waxu sëy bi nag laa xamul ndax yéen ngi ci wala déet parce que dafa ma woon carrément lu mel ni waxu sëy. Hmm. yéen a ngi ci. Hmm, waaw waxu sëy da nga ci waxtaan ak moom waxu sëy. waaw voilà donc su nekkee waxu sëy bi am na man gis naa ni il faut nga génnee ci sarax soo ci génnee sarax mën na sotti su neexee yàlla ah. waaw mais sarax bi nga ci génnee 2 kilos 500 lay doon de viande bu ñorul. waaw kilos 500. 2 kilos 500. ñaari kilo ak liibar. waaw uh-huh. ah, ñaari kilo yàpp ak liibar moom ngay génnee nga jox ko koo xam ne aussi na nekk jigéen miskin. Mm-hmm. jigéen bu amul dara daal. waaw mais nag euh, yow sa bopp yaa ngi ciy douter des fois ah, ci côté ndaw si aussi. Ah, ndax ku baax la walla ku baaxul la wala tamit ndax soo ko takkee dina am wërsëg wala déet. waaw. voilà mais man gis naa ni ku am wërsëg la de. am na wërsëg de te gis naa tamit déggoo ngeen daal. waaw déggoo ngeen lu mel ni daal sëy taxaw na fi daal parce que lu mel ni sëy taxaw na fi. Mm-hmm. waaw ana ki nga xam ne da ngeen ba da ngeen bàyyante. waaw moom dañu bàyyante moom. ah. waaw dañu bàyyante définitivement. waxal bu baax sëñ bi. dañoo bàyyante définitivement. voilà donc loolu la ma wax daal. Ah. voilà donc loolu la ma wax mais nag yow normalement du kenn rek ngay am de. Ah. yow di nga am ñaar ba ñett de. incha allah ah loolu de la ma wax dëgg wër kenn nga wax. waxal bu baax. man dëgg wër kenn nga wax. dégguma la. man wax nga dëgg. ah wax naa dëgg. waaw. ah loolu lay la ma wax nee na ma daal di nga am ñaar ba ñett. dëgg dëgg la. voilà donc loolu la ma wax foofu macha allah daal. voilà donc macha allah. voilà donc loolu daal fexeel def sarax bi rek dégg nga. macha allah jërëjëf. ah jërëjëf kon maa lay gërëm di la sant. mën le am sa numéro. waaw régisseur mën na la ko jox soo téye ligne bi rek. waaw ah, d'accord jërëjëf. voilà voilà donc du delluwaat tax yéen di wax ni émission ça continue jusqu'à présent donc vous pouvez appeler sur le serveur 88 628 71 71 di leen wax ni tamit euh, émission bi yéen a ko moom yéen a tax ñu koy def aussi. ci bés bu jeudi bi en même temps aussi bésu dimanche bi aussi euh, tout c'est en direct donc euh, mun ngeen woote ci 88 628 71 71 émission bi nag yéen a ko moom. 88 628 71 71. allo oui. allo. soxna si na nga def. maa ngi fi. alhamdulilah naka yaram bi. maa ngi tane. alhamdulilah léegi may ma tiire carte yi ah. waaw. allo soxna si. waaw wala donc lim ma ñëk won moy bir buy metti wala wet yu metti. Ah, ah. bir buy metti wala wet buy metti. waaw. yaa ci. waaw bir bu metti. waaw bir buy metti. waaw. ba dara nekku ci. ah. mune ba dara nekku ci bir bi. bir bi dede dara dara nekku ci. wala kon nak jog ci de parce que il faut nga fajj ko de. ah. waaw dem nga hôpital. waaw dem na. ñu la dara. ah. ñu la dara fofu ah dom jox na ma traitement daal dama koy def. mais waaw. ba léegi kam tanewul. ba léegi tanewul rek waaw. voilà kon nag il faut nga demaat ci beneen docteur encore ah. waaw donc bul yem rek ci kooku da ngay demaat feneen encore parce que gis naa ni daal feebar mu ngi sa biir. Hmm? gis naa ni feebar mu ngi sa biir. feebar mu ngi ci biir ah. voilà. waaw parce que day jàpp ndigg li jàpp wow bi. waaw yenn saa yi mu mel luy bouger des fois. waaw luy yëngatu. waaw voilà donc nee na nga jóg si de parce que lii su nekkul miom aussi mën na nekk fibron. Ah. mën na nekk fibron. xaw ma nag lu ñu la wax foofu. waaw luñ la fa wax. waxul fibron de. loolu lañ la wax. déedéet waxul fibron de. la wax foofu. déedéet mu ne kay biir bi kay mu dara nekku ci dafa dama traitement rek ma pour ma continuer. kon nag demaatal ci beneen hôpital. wala ah. beneen docteur. Ah. feebar mu ngi ci de. ah waaw ah, parce que li tax feebar bi feebar hôpital la wala feebar. feebar hôpital la moo tax ma ne la nga dem hôpital. feebar hôpital la. feebar hôpital la de demal parce que soo demee dinañ la wax carrément am na lu nekkoon ci biir bi ah. Hmm. su nekkee mosoo woon ëmb mu yàqu. Hmm? mosoo ëmb mu yàqu. déedéet. Ah, kon nag demal hôpital. Hmm. parce que je vois que am na leen lu nekk ci biir lu mel ni ay bul wala dara loo xam ne dañ ko war a dindi. waaw traitement boobu ngay def euh, xaw ma ku la ko jox mais quand même daal euh, nga demoon hôpital moo gënoon ñu saytuwaat la feneen nag bu bokkul ak fi nga demoon dégg nga hmm. waaw suñ defee analyse yi dinañ am lu ñu gis foofu de te na nga génnee sarax balaa ngaa dema ah. hmm. ngay génne quatre cola yu weex ak quatre cola yu xawul yoo xam ne xonkul weexul yu jaune quoi. cola waaw quatre cola yu weex quatre cola vert. waaw ñaari guro yu weex ñeenti guro yu weex. ñeenti guro vert waaw ak ñeenti guro yu xàll. ak ñeenti guro. yu xal la xàll yoo xam ne xonkul weexul. ah xonkul weexul. voilà. waaw comme ngir yooyu ngay boole lépp nga jox ko benn paa. benn paa. balaa ngay dem hôpital. balaa ma dem hôpital. waaw soo fa demee dinañ la wax daal feebar baa ngi nii dinañ la ko wax il faut nga faju mhm. parce que lu yàgg la sa biir. waaw dafa yàgg ci biir. waaw ah, yàgg na si biir bi te puis euh, pour ñu gis ko nag dafay xaw a jafe mais nag suñu la sawtoo bu baax daal suñu xoolee bu baax consulté la bu baax dinañ ko gis. Mm-hmm. incha allah dégg nga. que dafay. sama bi tànk yi aussi dafa diis. ah. tànk yi moom ma sonal aussi dafa diis. sa tànk yi dafa diis. waaw. ah jóg ci daal man daal loolu laa lay mën a wax. waaw jóg ci nga dem hôpital soo demee dinañ la wax loo xam ne moo la dal. voilà te puis tamit da nekk nit koo xam ne aussi xaw nga sàggan nag tuuti de. yaa may dégg de. waaw maa ngi lay dégg kay. ma ne xaw nga sàggan de pour nga jóg dem ci sa ay mbir. moo xaw a jafe yombul la de waaw man noonu laa mel. <laughs> <laughs> non noonu nga mel gañ man kay xamna non nga mel parce que ma lay gis aussi ci ki bi set bi waaw pour nga jog dem ci sa ay mbir mo xawa jafé comme ni ngadem lay wax ni nga dem hôpital so defu ndànk sax do dem waaw hôpital mom commencé wow dem waaw waaw wa kon na góorgóorlu ci waaw inshallah te nga genné tammi saraxu gerté xot gerté xot waaw liibar gerté xot wa mais bi bu ñor lay doon bu ñor waaw bu ñor ngay doon parce que dama gis tammi sa ay mbir dafa bari ay wax dafa bari wax waaw dafa bëri ay wax trop. yow lépp loo laal wax la. waaw voilà nee na euh, lenn aussi am na ci yow aussi doom bu góor bi danga ko am wala doom bu jigéen bi parce ñaar yëpp la génnee. Hmm? am doom bu góor ak doom bu jigéen. déedéet aw ma doom bu jigéen aussi. am naa kay. voilà nee na nag dina am kenn koo xam ne mun naa ne xale la kooku tamit xaw ma ndax yaa ko moom wala moomoo ko mais quand daal won na ma daal ku góor koo xam ne xale la dina nekk sa kër. dina nekk siir waaw waaw ah am na xale bu góor mu ngi mu ngi fii kay mu te turam màgg na lool aussi hmm? tur bi màgg na lool tur bi dafa màgg tur bu màgg la yore ah nu mu tudd moom waaw ah, ah, fu ma nekk daal am na Ibrahima Ibrahima locataire la Ibrahima man fu ma nekk ma nekk man Ibrahima la tur bu màgg la quoi kooku nag laay wax ko Nenek nak na lenn aussi mi ngi ci yow moy li ngay xalat sa doom beuri na. hmm mune li ngay xalat ci sa mbirum beuri na ci sa walu reuss pour ñu reussir wala pour ñu mëna am. waaw. wala nee nak fofu tamit da ma len di outal lu ñuy wax garabu cat hmm parce que gis na tamit yi même yow sax da nga beuri ay lamine aussi ci sa walu yaram en même temps aussi xalé aussi non lañu mel. waaw wala nee garabu cat il faut nga ut ko deng hmm inshallah kooku tamit da ngay dem ci marabu yi ñu defaral la ko ah. waaw voilà léegi tamit mu def tamit euh, ana góor bi nga xam ne dangeen nekkoon mais dafa mel ni daal yenn saay daaw leen woon déggoo bu baax. Hmm? kooku sa jëkkër la. waaw. daaw leen woon déggoo bu baax. déggul ak man ak man ak moom baax. waaw waaw. ah yéen a ngi déggoo bu baax fu mu nekk nii. waaw kay même tey woote na. ah. même tay wota na pour ci déedéet waxuma woote waxuma woote ci seen diggante laay wax. déedéet amul problème. wa amu leen problème. dédé kon nak moytul dé nga. waaw parce que benen jigen la gis lolu amna hmm benen jigen dina dugg seen hmm waaw su nekké nekkoo wujju nekkoo ñaareel wala ñetteel. né dina am hmm. jigen bo xam dina dugg seen digënté lolu amul. ah déet ah am amna am wujju ah kon nak lolu la ma wax dé waaw mm. ah. nee na nag danga def. très mun na moom peut-être mun na nekk keneen aussi yow laay waxal yow laay seetal. ah déedéet ma ne peut bi wala wala wala jigéen keneen keneen jigéen. man yow laay seetal nii yow laay waxal. waxuma kële de waxuma ñeneen ñi. waaw yow laay waxal yow laay ne na nga def très attention ci sa wàllu sëy. Ah, ah, waaw parce que dama gis ni soo nekkul wujj aussi di nga nekk koo xam ne aussi mën naa ne am nga wujj. Hmm? am nga wujj wala nga nekk deuxième wala nga nekk troisième. man première la. wala nga nekk premier waaw ak loo mënti doon daal mais am nga keneen non. waaw am na loolu nag laay wax moo tax ma ne la soo deful attention sa sëy dina yëngatu. yaa may dégg. waaw. waaw na nga jóg sa bopp. waaw. waaw parce que gis naa ni daal au niveau ci sa wujj boobu. Mm-hmm. moom tamit toogul. toogul. waaw. Mm-hmm. toogul de. Mm-hmm. soo deful ndànk nag sa jëkkër boobu aussi mën naa ne dina dem ba ci biir xelam yépp ci keneen ki lay nekk. Mm-hmm. parce que kooku tamit ku baax la. mu hmm? ne kooku tamit ku baax la ci moom. sama jëkkër. waxuma sa jëkkër sa wujju laay wax oh. du baax du baax moom ma ne. ah. yow yaay premier deuxième bi. waaw ku baax la moom tamit ci sa wàllu jëkkër. waaw waaw nee na soo deful attention nag di nga dem ba ci biir sa jëkkër sa foofu lay gën a féete bopp. Hmm. voilà dégg nga. ah na nga génnee sarax. bi ma lay wax soo ko defee jàmm ne ñooy. waaw sa benn sër ngay génnee nga saraxe ko. un pagne. Hmm? sa benn sër ngay génnee waaw. ban couleur. amul couleur benn sër rek nga saraxe. benn sër rek ma génne ma sarax. incha allah dégg soo ko sama sër wala moom sama sër boobu takk naa wadd naa ba pare wala ma jënd. waaw boo waddoo ba pare moom ngay génne. waddoo ba pare ma jënd. voilà dégg yaa may ne nag wax sa jëkkër jàppante wu leen woon mais li passé na de li amoon na de. Hmm. bi muy takk jabar. dina takk jabar. bi muy takk jabar bi muy takk dans le passé. waaw bi muy takk jabar amoon ngeen tuuti ay wax. amuleen wax. ah loolu de la ma woon fii. Hmm. kon daal yaa ngi ci jàmm daal. waaw maa ngi jàmm fan wii rek damaa feebar. ah d'accord. waaw fan yii moom damaa feebar sama yaram day diis tànk yi mënuma sax dog. Mhm. kon nag defal defal attention de li mu lay wax sa sëy bi dina yëngu de. waaw d'accord. ah wax naa la ko couleur bu marron mi ngi sa wet. couleur bu marron mu ngi sa wet. waaw kii bi bu waat téléphone bi marron la. waaw rouge bi est-ce que dindi nga ma ko foofu rouge. rouge waaw dindi naa ko. déedéet dindi woo ko mu ngi foofu. mu hmm? ngi foofu de dindi woo ko. rouge. waaw. dindi naa ko de. bu baax. Ah, gaawal de nit ñaa ngi. dindi naa ko. da ko dindi léegi. dindi naa ko waaw. ah voilà donc da koy dindi carrément. Mm-hmm. voilà donc loolu aussi nee na nga bàyyi sa xel sa ñaareel bi nag bàyyi ci xel dégg nga. Mm. waaw. waaw ah loolu foofu daal laay mën a yem. waaw kon maa lay gërëm di la sant. waaw kay merci jërëjëf. voilà donc di delluwaat tax yéen di leen wax ni émission bi seen émission la émission boobu gisaane en direct la yéen 88 628 71 71. allo oui. allo. soxna si na nga def. maa alhamdulilah naka yaram bi. ça va. alhamdulilah léegi may ma tiré carte yi. allo soxna si allo wa voilà donc li mu njëkk a aussi moy au niveau ci côté chance néna na am nga chance mais lo yoré aussi day dem voilà néna nak fofu da ngay génnee saraxu tendrement da ngay génnee kilo nga génnee ko ah paket paquet sucre bu yo voilà yoy ngay bolé nga tar ci fatia su nekké musulman nga nga tar ci fatia nga ñaan sa soxla yëpp après nga saraxé ko dégg nga jox ko neex ah d'accord mën nga ko def nag un jour de mardi wala jeudi incha allah voilà nee na tamit des fois sa xol du neex noonu. au niveau relationnel wala ci wàllu mbëggeel. waaw comme moment yi ñu toll nii nee na sa xol neexul noonu ko parce que li ngay bëgg ci loolu dafay mel ni des fois tamit sa xol day xaw a naqari. dëgg la voilà nee nag foofu tamit euh, da nga war a génnee sarax bi nga xam ne soo ko defee incha allah yàlla mun na ci def jàmm da ngay génnee juróom-ñaari sondeel yu ndaw. waaw sondeel yu ndaw juróom-ñaar ngay génne nga jël ko nga ñaan ci yàlla nga sarax ko koo xam ne aussi na nekk taalibee benn taalibe. d'accord voilà kooku tamit heure boo ko defee baax na dégg mu def tamit euh, lu mel ni liggéey boo xam ne yaa ngi ci woon mais dafa mel ni liggéey bi léegi dafa doxatul carrément. Ah. liggéey bi doxul wala danga ko arrêté. liggéey waaw dama daan jàng. waaw da nga ko arrêté. waaw voilà nee na nag foofu da ngay génnee tamit sarax nga def ko sarax bi ngay génnee mooy un litre de lait nga génnee ko benn litre meew voilà moom ngay génne mais de préférence sax nga defoon benn potu meew gloria waaw ak ñaari grouy weex ak ñaari papier blanc d'accord moom ngay boole lépp nga jox ko ku la neex dégg nga voilà nee na nag euh, fan yi amoon na loo géntoon xaw ma nag lan la en fait mais wan na ma daal lu mel ni gént est-ce que mën nga ma ko wax. waaw fan yi damay gént rek. waaw mën nga ma wax gént bi nga gént ma firil la ko. non dama koy fàtte nag. jàppoo ci dara. déedéet. waaw kon fanaanool ndox. ndox. ndox bi ñuy naan nga fanaanoo ko. waaw ci sa wet. nga tar ci yaa benn yoon ak ah, ñetti ul soo yeewoo danga koy tuur foo xam ne ci garab la de nga. waaw voilà nee na tamit euh, yaram bi des fois day metti loolu bopp la wala biir. biir. voilà nee na faj ko de. waaw voilà da koy faj mais feebar bu nekkul feebar bu garaaw garaaw noonu parce que dafa ma woon carrément biir bi day jàpp day metti nii rek après day dem toogaat lu yàgg. encore mettiwaat la nes ce pas. voilà nee nag foofu dafa laaj sarax boo xam ne moom nga war a def da ngay génne benn kilo ceeb. bu ñorul ah. mom ngay jël nga jox ko jigen bu maget ah. nga nga bes def ko bésu vendredi ah. suñ julé juma ba nopi nga saraxé ko deng wala ana lu xonku li est-ce que pousse nga ko lu xonku li ma ma ko sol ah kon nak il faut nga dindi ko de wala nga wala ñu couper rek parce que mënul ànd ak kon xama sama mat kon na gaaw allo allo soxna si. naa allo. allo soxna si na def. maa ngi fi. soxna si. waaw donc li njëkk a feeñ ci yow mooy lépp looy am aussi daf lay bett dégg Wala mu def tamit euh, da nga nek jigen bo xamne ne aussi mën na ne xalaat yi bari na lol lol lol mais nak xalaat yi li muy bari bëri yëpp aussi mën na ne tamit ku andax sa xel nga parce que daf ma won carrément da nit ko xamne ku lu bëgg la koku tamit su nekké mu ngi sa wet fofu wala tamit xam nga ko mën nga mako parce que daf ma won carrément bo xamne ku lay bëgg la am góor bu la bëgg allô am kay am wala néna nak koku des fois ngeen xawa jotté touti Mhm. voilà comme moment yi même len joté wul aussi dafa melni dal daal moment yi sen digënté neexul won bu baax mhm. voilà néna nak euh, ki nga xamné mo sol lu rouge li est ce que mën na génn fofu mu abal la fofu. yëpp waaw mu ngi génn mu ngi génn wa na génn quoi parce que pour mu baña rër réer yàq sa seet ah wa waaw na génn parce que su fa togué rek daf koy yaq ah, génn na. voilà légui tamit mu def tamit euh, koku nga nekkal dina la wax ay dafa amone problème soit ci walu liggéeyam wala ci walu yaramam mais dina la ci wax waa xaw ma nag ndax liggéey bi la ou bien yaram bi parce que dafa ma woon carrément euh, ñaar yooyu dina ci am benn boo xam ne dina la ko jàmbat. waa waaw. voilà léegi tamit mu def tamit euh, nitu neen nga nit nga boo xam ne aussi mun naa ne ci côté góor ñi góor ñi dañ la jox bopp. voilà mais nak fofu da ngay guenné sarax bi nga xamné mo fi feeñ loolu tamit soo ko defee dina bax lool lool lool sarax bi ngay ah. guenné moy luñu wax pièce d'argent moy ay pièce d'argent ya xam fukki dërëm la wala 100 francs la mm-hmm. nga koy faral di jël diko distribuer ay talibé hein ah. waaw waaw ah inshallah dégg nga commerce bi dang ko arrêté commerce bi waaw arrêté naa lu tax doxul rek damaa tijji moo tax ma ko. voilà nee na nag euh, kon nag sarax bi nga xam ne moom laa lay wax noonu def ko soo yeewu suba teel day jël ay pièces d'argent di ko jox ay taalibe wala ay xale. booku tamit soo ko defee euh, di nga gis tamit njëriñam parce que yàlla mën na la ubbil ay xéwal parce que dafa ma woon carrément daal sarax boobu dafa baax ci yow dégg nga. waaw waaw ay ay d'argent rek waa xaalis rek yu sew. yu ah. yu weccet rek waa nga koy jël di ko jox ay xale. parce que gis naa commerce bi sa liggéey la mais des fois aussi dafay mel ni lu xaw a euh, am ay tolof tolof daal. dëgg mel ni daal dëgër na lool aussi balaa ngaa am parce que da ngay ut ba sonn après ngay soog di am nag ba. dëgg voilà ginaar bu weex bi nag war nga ko génnee pour sa liggéey boobu te mën a décanté wu carrément ginaar bu weex bu jigéen. incha allah da nga koy génnee. nga sarax ko koo xam ne aussi mën naa ne jigéen bu màgget. di mon màgget. waaw mën nga ko def n'importe quel jour hein mais moi bu gën favorable sa mois moi mois de euh, janvier hein. Mm. janvier février ñaari mois yoy daal jàpp bu baax ay mois la yo xamné so ci tollé ci walu commerce mën na né commerce bi dina dox. nekkee tamit dem ah. ci waaw waaw su tamit yaangi ci aussi jappel mois yoy janvier février sa affaire dina baax trop. bi di ñëw sax bi di ñëw sax lay wax. mois de janvier ak février dégg Wala hmm. mu def tamit euh, nit nga tamit bo xamne ki tuddu euh, mustafa hmm. dang ko xam wala wala Aminata. Aminata. waaw. amna ko xamna ko tuddu Ami kay. waaw sax salan la. sama xarit la. sa xarit. waaw waaw moom tamit bonul ku bax la. Mhm. mais yow wo ay xarit. non non bari lo ko de. waaw xeyna mom rek la wala mu nek ñaari personne mais dal loolu la la mo won waaw moom rek la kay. voilà nee na nag kooku jàpp ko bu baax dégg nga. waaw yow nag sa lépp xaalis la yow lépp looy wut xaalis la. Ah. sa lépp xaalis la lépp looy dugg tamit euh, lu amul xaalis bu góor. waaw am na moom. ah am na kay. <laughs> nee na macha allah mais quand lenn tamit dinaa la ko wax mooy del saraxe ay mburu ah da ngay génnee ñetti kilo mburu uh-huh. nga def ci chocolat kilo bu nekk nga def ko ñeenti morceau ah incha allah. Uh-huh. nga jox ko ay xale yu góor ak xale yu jigéen. waaw mais heure boo koy def nag da ngay bàyyi bu ñu julli 5 ba noppi nga def ko. ma def ko waaw 5 suñ julee jullee ba noppi rek mën nga ko sarax ay xale. incha allah dégg nga. waaw voilà ana ana ku ñuy wax sukkay wala soxna. sukkay wala soxna. waaw. non ko xam nga ko de da ko fàtte. Ah. Hmm. sukkay. mën a nekk mag mën na nekk xale. Ah. su kay walla soxna mën na la sori aussi. kon fàtte naa ko. voilà mais man ki may wax. Mhm. Euh, pikin loo koy def. waaw wala Castor doo fa dem. Castor de laa dëkk. foofu nga dëkk. waaw kon nag ki ma lay wax Castor la Castor la nekk soxna boobu. Ah. soxna boobu xam naa ni peut-être xëy na danga ci bàyyiwul xel mais comme jox naa la foofu rek foofu la war a dëkk. mën na nekk sax koo xam ne da nga ko fàtte mu nekk Adja soxna comme genre yooyu daal. Ah, mën na nekk. Adja xam nga ko. Adja xam nga ko de aussi dangay jàpp nag li mu lay wax parce que dafa am solo. xam naa ko kay Adja xam nga ko. waa waaw lu tax ngay ne déedéet. non dama fàtte woon Adja. moo tax ma lay fàttali daal pour nga mën a xam parce que li may def nii tamit euh, daf may won lu bari ci yow. dëgg la voilà léegi tamit lu rouge li est-ce que mën nga ko dindiwaat aussi foofu. wala nga newa ndaw si dadem kumba gen nan kumba kumba day dugg di génnaat rek nag génn bokk carrément kumba génnaat ci day coupé allo allo oui dem na wa su duggee day yak sa sedd deug la wala légui téré biñ la joxone wala sangat bi anamu mu ngi ci yow wa ah waaw mu ngi ci man. nee na baax na trop xaw ma ku la ko jox mais naxu la de baax na trop. Ah. mais nag danga nga koy tekki rek wala tamit nga mel ni ku ko kiiwul daal ku ko respecté wul. Ah. waaw baax na kañ. Ah, kon baax na. dégg léegi tamit mu def tamit euh, lenn aussi mu ngi ci yow mooy da nga nekk mhm. jigéen boo xam ne aussi mën naa ne dangay gaaw mer des fois. Hmm. waaw waaw moo fi feeñ de. waaw sa xol des fois day gaaw a tàng. Mm-hmm. voilà léegi tamit doo ma ne mukk xamoo Marème de wala Mariama. Marème xam naa ko kay. waaw soo ma nee woon xamoo ko de na ma lay wax carrément xam nga ko. xam naa ko. voilà léegi Marème boobu sa lan la. sama sama jabar la. sa jabar. waaw. ah kon nag sa goro la ko waaw. kon nag jàpp ko bu baax dégg nga. waaw. bu ko fitnaal de <laughs> parce que yow da nga gaaw mer da nga gaaw tàng ah. ah bu ko fitnaal daal parce que gis naa xale la boo xam ne ku baax la ah. waaw bu ko fitnaal soo déggee nag moo wax la loolu am na lu tax de waaw lu tax lan la waaw parce que da ngay jékki-jékki rek changer couleur jékki-jékki tamit mel ni comme nit daf la def dara fekk nit defu la dara loolu mhm. baaxul. léegi loolu lan moo ko indi. sarab bi moo ko indi parce que da nga amee rab. ah, ah waaw doo jékki-jékki rek mel ni ku tàng wala mel ni ku bëggul bokk de ci dara wala tamit mel ni comme ku jéppi nit ki. loolu mën na waaw day nekk kay. ah loolu la loolu nag euh, il faut nga moytu loolu wala nga xeex ak moom ba loolu dañ parce que tànk dañu dañul tamit da ngay def ci ay erreur rek da ngay nekk koo xam ne aussi mën naa dañuy dem sax ba nee sax ki dafa bon wala ki dafa soxor fekk ne yow du yow mais ci li nga nekkal ah. moo moo nekk lu doy waar. voilà donc foofu tamit soo gisee ma la koy wax pour ma won nii am na loo xam ne dafa nekk ak yow dafa lay yàqal. loolu tamit lu ñuy faj la rek loo xam ne da ngay dem ci ñi nga xam ne ñoo koy saytu ñoo koy def ñoo ci jëfandiku ñu jàppale la. waaw waaw allah dégg nga. waaw tànk bi doon metti bi tane na. sama tànk am na dëstën bi day metti suufu tànk bi day mel lu tànk non mettiwul de. bi tamit mettiwul. tànk bi dafa doon metti de soxna si. voilà donc maa koy gërëm di ko sant bu baax donc di delluwaat tax yéen euh, di wax ni tamit émission bi yéen a ko moom émission boobu gisaane en direct lax yéen fu mu toll nii 88 628 71 71. allo oui. allo. soxna si na nga def. voilà yokkal baat bi nañu mën a jokkoo ah. allo soxna si ne eh, yow lepp loy am deux fois lay doon jig jigen nga wala né nak ci mbirum xaalis aussi mën na né lepp loy out aussi des fois day mel lu xawa deuguer touti bala nga am am fay metti da ngay da ngay son lool bala nga am ah wala né nak ci bir lool aussi dina la wax sarax bo xamné soko défé inshallah yalla mën na la dimbali bu baax ba lool aussi mën naa ne tamit nga ci am wërsëg euh, musulman nga ah? voilà da ngay wax yaa euh, da ngay wax yaa waxaab yaa waxaabu. da koy bind nga wax yaa waxaab. yaa waxaabu. waaw da koy réciter onze fois. soo julee suba si ba noppi. nga wax loolu nga du ko onze fois rek dégg nga. soo ko defee aussi mën naa ne doo ñàkk xaalis de da ngay gis tamit mbir yi day ñëw. di ko lancer message aussi ñi nga xam ne tamit mun naa ne soxla nañ xaalis mun nañ ko def yaa waxaab yaa waxaabu di ko def 11 fois wala 33 fois incha allah voilà da nga koy bind bañ ko fàtte dégg voilà nee na tamit euh, yow da nga nekk euh, jigéen boo xam ne mën naa ne lépp loo jàpp de fois da ngay gis tamit euh, lépp loo dugg mu dëgër wala tamit nga di gis daal xel bi toogul daal parce que na ma gis sa xel dafa jaxasoo ah yokal bat bi soxna si yokal bat bi nga ne wala lol nak la lay wax ni parce que lol mo fi feeñ xel bi da fay jaxaso lepp lo dug mu yàqu te puis itam da nga nek nit ko xamne aussi euh mën na ne da ngay dem ba des fois sax da ngay jaaxle loolu lan moko waral wala léegi nak euh, lol aussi mën na ne ci carton yalla aussi lol tamit da ngay ut moom dem na mais mom day out euh, lo xamne aussi day dem ci marabu yi ñu jox lo xamne bayre la mu koy faral di sango wala diko ko lool inshallah su ko defee aussi yalla mën nako ko ay xewal ma ngi koy gëreum diko ko sant allo oui voilà donc du delwa tax yeen di wax ni émission sen émission la émission Bobo Guissané en direct allo oui allo señ bi allo allo allo oui sëñ bi da bàyyi télé bi nga yokk baat bi mën a dégg. waaw dëgg def. na def allo allo oui ah, kon maa koy gërëm di ko sant voilà donc di delluwaat alo oui allo. allo allo. sëñ bi na def. sëñ bi allo. waaw allo soxna si ou sëñ bi la parce que da nga yokk baat bi ñu mën a jokkoo. waaw allo waaw sëñ bi na def. maa rek. waaw looy mel ni ko ragal mënoo yokk baat bi nii. waaw allo sëñ bi. waaw. voilà donc li mu njëkk woon aussi mooy yow tamit da nga nekk nit koo xam ne di nga xalaat lu mel ni voyage waaw su nekkee nag da nga ko bëgg lool lool lool fu mu nekk nii mën naa ne tamit mën naa la wax sarax yi nga xam ne moom ngay def sarax yi ngay def nag euh, na nekk tamit lu ñuy wax ay fruits ah fruit fruit da ngay génnee banaan fu nekk ñett ñetti banaana ñetti pomme yu verte ah ak ñetti orange allo sëñ bi mënaa la déggul da ngay yokk baat bi sëñ bi ñu mën a jokkoo voilà nee na soo ko defee allah yàlla dina la dimbali bu baax mais nag da nga nekk tamit nit koo xam ne yow tamit sa mbir dafa dëgër lool lool lool lool loolu am na de voilà nee na nag xalaat yu bëri bëri na ci yow parce que da nga nekk nit koo xam ne aussi da ngay ut dara ba sonn balaa nga am da ngay sonn lool voilà neen nag foofu tamit da ngay génnee sarax bi nga xam ne moo fi feeñ soo ko defee tamit yàlla mën na la dimbali da ngay génnee ñetti saabu ordinaire saabu ordinaire. waaw ñetti saabu ordinaire ah. voilà loo doon def nga arrêté ko jàng la wala lan la en fait parce que dafa ma woon ni am na activité boo doon def mais dafa mel ni doxatul. yokkal baat bi nag. ah. allo allo. mënoo yokk baat bi. élève danga ko arrêté. voilà nee na nag pour sa mbir mën a baax aussi mën naa ne tamit il faut nga ut ay mbir yoo xam ne aussi yooyu sangoo la comme garabu cat surtout nag parce que dafa mel ni daal lépp loo laal day dëgër te pitam da nga nekk nit koo xam ne aussi mën naa ne tamit ñu bëri yaakaar nañ ci yow donc loolu aussi mën naa ne tamit loolu mooy ub sa bopp yenn saa yi yaa may dégg allo kon maa lay gërëm di la sant. voilà donc le dialogue tax yéen di wax ni tamit euh, mbir bi yéen ko mom émission Bobo Gissane en direct la fu 88 628 71 71. allô allô allo allo la moom tamit donc 88 628 71 71 pour nous, mën a allô allo oui. allo. soxna si na def. maa ngi fi. voilà léegi may ma tiré carte yi. allo soxna si. allo oui. voilà lu rouge est-ce que mën nga ma ko dindil ba pare. waaw mën naa ko dindi kay. waaw ah, dindi ko boog da nga ko sol xanaa. déedéet soluma kon nag dindi ko puus ko. waaw puus naa ko. wala nga dindi ko carrément. dindi léegi li mu ma woon aussi mooy au niveau ci côté wërsëg nee na macha allah ñi nga nekkal tamit ñu am wërsëg la ñu mais sa problème mooy au niveau tamit ci côté parent yi. Mm-hmm. waaw ci côté parent yi dina ci am kenn koo xam ne daf lay fiire wala mu mel ni daal nit koo xam ne aussi dafay bëgg nga réussir. Nena na ci bir lolu aussi nee na nga génnee sarax bi nga xamné soko défé aussi machallah di nga gis ndam parce que daf ma won carrément ñetti mois yo xamné mën na né mois bo xamné ne na trop ci yow moy février décembre à janvier ñetti mois yo japp ko bu baax dégg nga février allo ah, février décembre janvier inshallah dégg mm-hmm. nena waaw am nga soo góorgóorloo sa affaire dina baax lool lool lool parce que daf ma woon carrément euh, nit nga tamit boo xam ne danga am décision dafa am loo xam ne aussi mën naa ne danga nga réaliste dafa am loo bëgg. moom tamit dem na donc moom dafa am lu mu bëgg donc su góorgóorloo aussi gis naa ni dina am une belle avenir boo xam ne aussi bu nekk ci kanamam donc na génnee rek sarax yu weex mu koy faral di def kooku tamit su ko defee dina baax loolu maa ngi koy gërëm di ko sant allo oui. allo. allo. soxna si na nga def. maa ngi rek. naka yaram bi. alhamdulilah. alhamdulilah leg may ma tiré carte hein. Ah. waaw waaw. allo soxna si. waaw. Wa nena yo yow tamit da nga nek jigen bo xamne li ngay jafandiko bari na li ngay japp bari na mais tamit da nga nek nit ko xamne lo xass ba japp do ko gaaw allo dégguma bu baax. lo xess ba japp doo ko gaaw a waaw wala neena tamit loolu aussi jàmm la mais tamit len tamit dina la ko diggal moy e nga def ko sarax soko defé tamit dina baax. ma def saraxu lek defal ndànk waxaguma la sarax bi de da ngay genné sarax bi nga xamné e, savon la ñetti savon yu. ñetti savon waaw ñetti sabu ya xam ordinaire la ya xam parfumé la mais dal genné ñetti sabu waaw yo xam dang koy jël nga jox ko ko xamné aussi mën na ni ko ko yello la ah. waaw muy góor muy jigéen ah incha allah. incha allah voilà nee na tamit am na góor boo. ah. ñetti saabu yi. saabu. waaw moom ngay jël nga jox ko ku la neex. waaw baax na neen soo ko defee incha allah dina baax trop dégg nga. waaw incha allah am na góor boo bëgganteel loolu aussi. kooku hmm. tamit feeñ na fi. Hmm? ku góor koo nobanteel wala koo bëgganteel loolu. waa sama jëkkër. voilà nee na kooku nag des fois da ngeen di am tuuti ay réeróo ci ay wax. wala nen nak comme moment ñu tollu ni amon ngeen ko mais nak dafa nek ko xamne ne aussi mën na dafa am caractère. waaw sa jëkkeer bobu dafa am caractère te nit la ko xamne aussi mën na ne bañu la bëgg na la lool. Mm-hmm. yo ya fiir wala mom man fiir na waaw fiir na de. kon nak yo ya fiir donc fiir bobu tamit euh, soko wañul aussi mom tamit dina sonu de parce que dina dem ba ben moment bo xamne aussi day mel lu xat. Mm-hmm. parce que lool la fi gis de. ma wañi ko. ah firal de fiiral ko bo mo mënu wala ne nga wàññi ko mais quand même xam nga lu upp mom tuuru waaw voilà so gisee ma ne wàññi ko moy da ngay dem ba des fois sax mën na ne mën nga di lal ay portable parce que loolu tam feeñ na fi wala nga melni ku koy vérifier wala ku koy contrôler mm-hmm. ah voilà tubab nak dafa ne ki cherche trouve Mm -hmm. lo lo lo ki rek mën nga ko gis donc lolou tamit euh, motax malay né na nga bu mu ëpp daal waaw voilà parce que soo gëstoo loolu di nga gisaat leen loo xam ne dafay tàngal sa xol te loolu mën na yàq seen diggante. waaw baax na voilà donc loolu aussi won na ma loolu parce que li tax ma la koy wax mooy noonu nga mel. Mm-hmm. voilà da ngay ñaaw njort. voilà donc loolu aussi feeñ na liggéey bi nga xam ne sa jëkkër daf koy def. Mm-hmm. dama koy waxal moom ci boppam liggéey bi baax na. baax na waaw baax na xaw ma nag ndax moo am ay partenaire tubaab wala ay naar. wala yow yaa am ay tubaab wala naar mais daal gis naa daal ci yéen ñaar daal dina ci am kenn koo xam dina nekk ay tubaab wala naar. lay liggéeyal. waaw. waaw amaguñ ko de. amaguleen ko. déedéet. kon moom ci boppam dama koy waxal loolu parce que dama gis ay partenaire tubaab moom ci lu muy liggéey am na partenaire tubaab de. Hmm. parce que war na ma lu mel noonu daal. waaw voilà léegi tamit mu def tamit njig jigéen nga aussi lépp looy am day répété. voilà donc loolu aussi feeñ na fi bu baax sa jëkkër nak japp ko bu baax dégg wa inshallah parce que li tax mala koy wax moy da nga fiir ba yow bëggoo sax ay wujju. hmm mune da nga fiir ba bëggoo wujju. Hmm. ba do wujju. ah dedet <laughs> aw ma wujju. voilà motax mo wax la loolu donc euh, da nga fiir ba bëggoo loolu. Hmm. donc euh, sa jëkkër mo tubabé wala yow parce que dama gis tamit ko xamné dafa tubabé ci yeen ñaar yow la. yow yaa tubaabe. waaw moom daf la koy wax. waaw. <laughs> voilà kon nag euh, am na loon loo xam ne buggoon naa la ko wax mais il faut ma wax la ko parce que. Mm-hmm. yow sa sëy. Mm-hmm. avant nga doon sëy. amoon na góor boo xam ne tamit bëggoon nga ko lool lool lool mm. loolu am na de. Mm-hmm. lii c'est dans le passé. déggatoo ma la de. waaw ma ne loolu amoon na xanaa waa ji moo nekk sa wet. déedéet nekk fi. voilà kon téléphone bi mooy xaw a dégg bu baax daal. ah déggoo bu baax. waaw. yaa may dégg. waaw maa mu ne avant mariage bi. Hmm? amoon na keneen koo xam ne duggante woon ngeen nekkoon ngeen ensemble. ku ma doon génnal. waaw kooku yàgg na trop mais kooku buggoon nga ko trop aussi. voilà donc loolu aussi feeñ na nee nag yow euh, comme li nga wax rek da nga tubaabee mais tamit ci biir tubaab boobu ngay def noonu aussi esprit tubaab boobu nga am. Mm-hmm. nit nga tamit boo xam ne mën naa ne tamit sa góor sa jëkkër bi dina dem ba dina ci topp c'est-à-dire dina dem ba mel ni yow daal parce que gis naa ni moom tamit nit la koo xam ne bëgg na la lool. Mm-hmm. yaa may dégg. waaw voilà donc loolu aussi feeñ na léegi tamit mu def tamit euh, defal très attention. Mm-hmm. ci côté fiir bi nga fiir parce que war na ma deux fois que fiir bi mëna na la indil ay problème mm-hmm. lool nak ma koy soog wax nit mm-hmm. parce que so gisé mo la koy répéter wat c'est-à-dire dama gis tamit euh, so ci taxawul so ci li ngay fiir nonu so ci bayiwul mëna dem ba mom ci bopam sax mëna né mëna outat lenen def lu mu def ah mu def lu mu bëggut def voilà très bien voilà mu def lo xamné xam nga dafa melni rek nit bu xat day dem ba après day day bëgg fippu mm-hmm. donc fippu bobu nak la gis fi hein ah. waaw bon pour preuve aussi am na benn couleur bu bleu bu nekk sa wet su nekkee mu ngi fa wax ma ko. couleur bu. bleu. bu bleu. waaw. bu nekk ci sama wet waaw dama ko sol de. ah da nga ko sol. waaw voilà loolu mooy wane tamit da nga nekk nit koo xam ne aussi mën naa ne soo doon liggéey liggéey bi dina baax lool aussi walla nga nekk fa dara. Hmm, waaw voilà soo doon liggéey di nga nekk koo xam ne daal mën naa ne ko am daraja ngay nekk ci cadre liggéey bi ko mais comme que liggéeyoo aussi foofu tamit mën naa ne ba léegi yàqul dara aussi mais quand même mës a def dara loo xam di nga ko ubbi. Hmm? di nga mës a def commerce. commerce. waaw. waaw danaa danaa jënd du kii mais doxul daal du dox. voilà kon nag euh, jéemal changer li nga xam ne moom nga doon jaay nga defaat leneen encore. defaat leneen. voilà mais toujours ci domaine commerce laa la gis. ma def commerce bi daal commerce bi daal soo ko defee dina baax mais nag commerce bi ngay def dafay mel ni da ngay faral di voyager man boobu laa gis. voyager. voyager boobu laa gis. waaw incha allah parce que gisuma commerce booy toog. commerce boo xam ne da ngay déplacé wu. Mm-hmm. nee na boobu moo baax. di dem ci naar yi wala di dem ci tubaab yi. waaw baax na baax na. waaw surtout nag naar yi comme ay dubaay wala Maroc. moo tax sànq nee naa la soo defal attention gis naa ne sa jëkkër wala yow dina am koo xam ne daal mun naa ne dina nekk ay tubaab wala naar soo deful ndànk na yow lay doon parce que won na ma carrément daal euh, commerce boo xam ne di nga ko def mais ci naar yi lay doon mm-hmm. incha allah dégg nga. voilà nee na nag euh, war nga génnee sarax aussi sarax bi ngay génnee mooy lem benn litre lem ngay génnee. lem lem miel. waaw. litre un litre de miel. mom ngay jël nga jox ko un vieux aussi. ma jox ko kan. ben pa ben pa inshallah wa waaw baax na. ko mënee def n'importe quel jour baxna baxna voilà sabu bi nan ah sabu mën nga ko jox ay xalé talibé wala nga jox ko ben talibé wa baax na. deng wa inshallah nga. metti tu yaram bi dañ na. ah me day metti de. ndigal la wala bir bi. yaram bi daal day métti jëm digg leeg tànk yi. waaw voilà est-ce que xool nga ndoxum siti garabu ndoxum siti. xooluma ko. kon nag vérifier ndoxum siti dégg nga. waaw parce que gis naa tamit euh, yaram bi dara nekku ci mais quand ndoxum siti moom mun naa ne lu lu làqu la ci yow daal. waaw baax voilà donc loolu moo tax tamit des fois day mel ni suufu tànk bi day tàng. waaw. mel ni yaram bi day jékki-jékki tàng di sedd. di metti waaw noonu lay def. voilà nee garabu ndoxum siti vérifier ko ci nga. allah dégg nga. waaw baax na. ah. roqeya. roqeya. waaw. roqeya roqeya. wala rama. wala. rama rama. rama. waaw. ah am na buma bu ma de. moom sa la da ngeen rek. waaw. di ngeen am naa tante bi tudd Roqee yi. kon sa tànt laay wax. moom dina xaw feebar tuuti. wala muy jàmbat feebar su jàmbatee feebar nekku na génnee yëreem. ma wax ko. na génnee yëreem benn yëreem. benn yëreem. voilà incha allah dégg nga. mu saraxe ko su ko defee rek incha allah eh, dina tane ci jàmm. incha kon maa lay gërëm di la sant. waa njaboot bi laa doon xool xale yi. voilà xale yi su nekkee am nga ay doomi góor baax na. mais quand même euh, ci côté njaboot yi gisuma ci problème noonu de. Ah. gisuma ci problème de parce que won na ma daal. Mhm. ñoom yaa ngi leen di surveiller bu baax yaa leen di encadrer bu baax. voilà donc wanuma ci dara dara dara lu xam ne daal lu ñaaw la. waaw lu dul jàmm ak salaam laa ci gis. incha allah am nga doom bu jigéen. waaw benn bu jigéen. nee na kooku dina réussir. dina réussir. waaw incha allah voilà ci kàttanu yàlla. incha kon maa lay gërëm di la sant. jërëjëf voilà donc di delluwaat tax yéen di wax ne émission baa ngi continuer ba jusqu'à présent donc mën ngeen wootee ci 88 628 71 71. allo bi. allo. allo waaw soxna si naa def. waaw ça va. naka yaram bi. ça va alhamdulilah. léegi may ma tiré carte yi ah. waaw. allo soxna si voilà donc li njëkk feñ aussi moy des fois sa da fay ubu mais li ub sa bop aussi mëna na nekk ci activité bi ngay def wala tamit nga nekk nit ko xamné ne aussi mëna né ci biir sa mbir aussi dafa mel ni dal lo xam ne lu yaatu la mais quand même da ngay génné sarax bi nga xamné mo fi feñ moy ñetti mbusu so ngay saraxé ñet ñetti mbusu so ngay saraxé ñetti mbuusu so wa mom ngay génné nga sacrifier ko deng waaw voilà ana xale bu góor bi nga xam ne dangeen ngeen bëggante woon. bëggante woon. bëggante. nee na nag moom ci boppam su nekkee sa jëkkër la. waaw mun naa ne moom dafa mel ni daal nit koo xam ne moom tamit topp na la bu baax bëgg na la bu baax aussi. Ah. waa mais des fois yow dangay ngay ub boppam. Ah. waaw nga ne sa jëkkër la. waaw. ah kon sa jëkkër bi moom. sa jëkkër la wala daf la bëgg a takk. sama jëkkër la. sa jëkkër la. waaw. waaw kon ana keneen ki. ah man dama am jëkkër. ah kon nag moytul de. ah gis naa jëkkër gis naa tamit ku leen yaa may dégg de. maa ngi dégg. mais gis naa jëkkër mais gis naa tamit nit koo xam ne ku la nopp la kooku nag xam naa ni moom. soko gisul aussi ding ko gis parce que dafa ma won lolu motax ndax am nga jëkkër hmm, dama am jëkkër wala kon nag moytul tamit benen xalé bu gor gis la di wax ay waxu temi lolu tamit dina am mané ne moytul benen xalé bu gor gis la di wax ay waxu mbëggeel ah, kok lolu dina am de li la wax ni bindu ko téré hmm, yalla ci yalla musal ah <laughs> waaw dina la ci musal mais tamit yoy ay mën musal sa bop wa deug la du deug voilà donc am na ñoo xam ne xamuñu ndax yaa ngi sëy wala sëyoo. Hmm. soo gisee ma wax la lii dama ko gis dama gis beneen xale bu góor dina la wax ay waxu mbëggeel. Hmm? beneen xale bu góor dina la wax waxu mbëggeel. Hmm. kon da ngay moytu dégg nga. waaw dëgg la. léegi tam mu def tamit lu xonk lu nekk sa wet est-ce que mënul ma ko dindil. xonk. rouge waaw mu ngi foofu. orange la orange. waxuma la orange bi rouge bi laa la wax man waxuma la orange rouge laa la wax. rouge mu ngi fa de xool ko bu baax. ah raakool la ma ah, nga may ne amu fa. waaw nee na tamit euh, ci wàllu doom. doom bi amagoo ko. doom bu jigéen déedéet. nii góor tamit amagoo ko. Ah, amagoo doom bu góor. voilà nee na gor euh, gor lu bu bax aussi su nekk am nga jëkkeur parce que lool nga mo wax mais quand même lenn tamit dinaa la ko wax aussi moy na nga genné sarax bi nga xamné ne fën ci yow da ngay genné ben parfum ah, parfum bu neex nga sarax ko ko xamné tamit jigen la deng wala waaw lool nee na ko dina bax lool lool lool lool parce que daf ma won carrément da nga nekk jigen bo xamné aussi mën na né tamit euh, li nga yaakaar bari na te ñi la yaakaar aussi bari na waaw voilà donc loolu aussi won na ma ko. waaw léegi su ma diggante jëkkër. ah sa jëkkër bi kañ man sañu ma ko xool fii parce que gis naa ni ah bàyyi ma xool ko rek mais tamit li mu la wax noonu tamit jàppoo jàppoo ko mais di ko gis de. Hmm. ah li nga wax moom dégg. maa ngi dégg maa ngi nii wetam. waaw léegi xaaral ma xool ko mais daal li mu la wax nii. bind ko téere de dina amaat keneen koo xam ne dina wax ay waxu mbëggeel de allo soxna si allo waa voilà donc euh, sa sëy bi doy na waar de hmm. waaw doy na waar lool lool lool musoo sëy feneen kon defal très attention sa wàllu sëy dégg nga Ah, ndax lan. ah su nekkee yaa ngi sëy sëy bi dina am problème de. Hmm, problème lan la am. ah bàyyante wala problème séparation parce que loolu laa fi gis wala tamit euh, li ngay wax tamit leeruma carrément même su nekkee tamit leer na aussi nee na nga def très attention. parce que daf ma hmm. daf ma woon carrément daal couleur bu marron mu ngi sawel aussi. marron waaw. waaw mu ngi fa. waaw dañ na. néew ma la nga dindi ko de bàyyil marron bi foofu man rouge rek laa bañ. mais marron bi moom jarul nga koy laal mais soo gisee ma lay wax marron bi mooy li nga may wax noonu même su nekkee dëgg la aussi nee na nga def très attention ci côté sa biir sa diggante ak sa jëkkër boobu nga may wax. Mm-hmm. waaw donc soo deful attention di ngeen am problème walla ngeen am ay wax yu sew ba seen diggante aussi du mën a neex. Mm-hmm. loolu la ma wax de. yaa may dégg. dégg. voilà donc loolu la moo foofu leerul de. mais nga waaw. allo. nga ne ndax problème lan lay doon. waaw. Ah, problème amour. di ngeen ci am problème. comme ah. allo. nga ne. ma ne man moom am problème. yéen ñaar yéenay am problème parce que yéen ñaar laay seetal fu mu nekk nii. Mm. voilà leerul daal li ngay wax man leeruma même su nekkee tamit leer na aussi di ngeen am ay jafe-jafe. Hmm? ma ne li ngay wax leeruma. leeruma comme lan. comme ki ngay wax noonu sa jëkkër la wala tamit dafa nekk nit koo xam ne da ko bëgg wala lii ak lii parce que man dama gis tamit dina amaat beneen xale bu góor boo xam ne dina la topp man foofu laa gis boobu laa gën a gis. ah ba ma am jëkkër déggoo ma de ma ne. Hmm. même su nekkee da nga am jëkkër dafa très attention dina amaat beneen xale bu góor bu lay nopp loolu leer na noonu. wala hmm. da voilà dégg nga ma. waaw voilà donc yow sa affaire jëkkër man kooku intéressé wu ma fu mu nekk nii man xale bu góor bi ma gisaat moo ma intéressé. Hmm. voilà jërëjëf voilà donc di delluwaat tax yéen di wax ni émission bi seen émission la émission boobu gisaane en direct tax yéen fu mu toll nii 88 628 71 71 allo oui. allo. allo soxna si. waaw. na def. maa ngi sant yàlla. alhamdulilah yàlla nga doole sant bu baax. léegi may ma tiré carte yi ah. mhm. allo soxna si. waaw di am góor boo xam ne bu la sori la mm-hmm. neen su nekkee noonu la foofu mën naa ne war nga génnee sarax benn paquet sondeel rek ngay génnee ak juróom-ñaari guro yu weex. juróom waaw ak benn paquet sondeel. waaw baax loolu soo ko defee incha allah di nga ci gis jàmm ak salaama. waaw nee nag nit nga tamit boo xam ne mën naa tamit euh, ci côté famille wala ci côté kii ku yàgg sonn nga wala nga nekk daal nit koo xam ne si yàgg nga sonn ci famille. waaw bëri nga ay charge daal laa bëgg a wax. Mhm, mhm. charge familiale surtout ah. mhm. nit ñi am yaakaar trop ci yow. wala lol tamit feeñ na mais nak fofu tamit da ngay guenné sarax tamit soko ko aussi yalla mën na oyofal mbir yi li ngay guenné aussi na nek un paquet de bougie euh, wax naa la ko sank mais da ngay wat benen paquet bougie ak drom ñaari euh, bekk sucre wa benn paquet sondel ak drom ñaari bekk sucre mom ngay jël wa nga jox ko ko xamné aussi na nek jigen bu xess wala nee nak euh, len aussi amna dans le passé sa affaire na lol Mm-hmm. waaw parce que soo xoolee aussi mën naa ne ci wàllu yaram bi day metti mm-hmm. wàllu tamit soxla yi aussi euh, mën naa ne soxla yi day diis si yow yenn saay mm-hmm. donc yooyu yëpp tamit mun naa ne ay facteur la yoo xam ne mu ngi ci yow yoo xam ne mën naa ne pour nga wax ko nit sax problème lay doon pour nga wax ko nit sax problème lay doon donc loolu aussi feeñ na waaw léegi tamit mu def tamit euh, ci wàllu góor bi dafa la sori moom fu mu nekk waaw bitim réew. waaw. waaw ak fépp fu munti nekk daal gis naa tamit góor la boo xam ne mun naa ne euh, bañu la. bëgg na la mais li mu ci xaw a jaaxal aussi mooy yenn saa yi dafay wax dara mais balaa mu kaa def day xaw a yàgg tuuti. waaw. waaw loolu daal dangay dem ba des fois sax da ngay mel ni kuy hésité ndax moom euh, li muy wax dëgg la wala du dëgg wala tamit lu tax muy def loolu. voilà neen nag foofu da naa la wax sarax boo xam ne doo ko defee tamit di nga gis tamit lépp dina oyof ci yow. da ngay génnee juróom-ñaari kayit yu weex. ak juróom-ñaari sondeel encore toujours sondeel bi mu ngi lay topp. juróom-ñaari weex juróom-ñaari ak ñetti nen yu weex yoo xam ne yu ñorul la. waaw allah yooyu ngay boole nga jox ko ku la waaw. juróom-ñaari mhm. ak ñetti nen yu ñorul yu weex. moom ngay boole nga boole ko nga jox ko ku la neex soit nga jox ko kuy dox ci yoon sax moo gën. walla incha allah mu nekk góor wala jigéen ah. voilà mm-hmm. nee na nag euh, lenn tamit am na mooy da nga nekk nit koo xam ne lu mel ni kër wala terrain kooku tamit di ngeen ci waxtaan. loolu am na ba pare. voilà nee na nag ci biir loolu aussi foofu euh, su nekkee yaa ngi fa dëkk. Mm-hmm. nee na foofu tamit war ngeen fa bàyyi benn ginaar séq. ci kër ga. waaw benn séq bu weex. Mhm. voilà nee na néanmoins kooku tamit soo leen ko defee baax na même su deewee sax wala mu kii sax baax na mais ngeen yar ko foofu. waaw waaw nee na tamit euh, loolu tamit baax na trop ci yow parce que soo leen ko defee tamit baax na trop dafa leen di. fanqal lu bari daal. waaw voilà léegi tamit euh, nee na tamit ana astu wala aysatu. ah. amul de Aysatu. Aysatu astu xool bu baax. waaw amoon naa ko dañ ne dafa gaañu. amoon nga rakk. doom doom anamu nag. dafa gaañu. waaw. voilà donc euh, foofu tamit euh, mën naa ne kon nag ñaanal ko dégg nga. mën naa ah. waaw. ñaanal ko parce que comme que turam dafa feeñ. mu jege la lool aussi mu gaañu aussi foofu tamit soo ko mënee taril benn yoon fatiha ak onze ulool laaw mhm. nga soo julee nga defaral ko ko baax nyala nga ñaanal sa bopp ñaanal ko aussi kooku tamit lu baax lay doon na ah. mhm. voilà léegi tamit euh, nee tamit lenn tamit am na mooy au niveau ci côté sa yaram sa yaram moom day metti ah mhm, ma ndax yaram bi yëpp metti wala yax yi ñooy metti voilà maa yaa koy faj dem nga ci docteur hmm, waxuñu la dara lu leer affaire ndoxum siti ndoxum siti voilà donc loolu man mënuma ko weddi aussi mais quand même daal euh, kooku tamit nag looy war a faj la rek ci ñaar yëpp ah mën nga ko faj ci docteurs yi mën nga ko faj tamit ci tradipraticiens yi mais tradipraticiens yi daal moo gënoon cest à ci ñi nga xam ne loolu mooy seen spécialité ah voilà parce que j'ai vu que aussi ndoxum siti bi dafa mel ni lu xaw a làq tuuti mm-hmm. yow bi nga amee mm-hmm. dafa làqu soo deful naag sax da ngay ne dara dalu la voilà mais quand même daal euh, toppatoo ko nga dem ci tradipraticien ñu defaral la ay garab incha allah. voilà léegi tam mu def tamit euh, lenn aussi mu ngi ci yow aussi mooy yaakaar yu tas bëri na lool ci yow. ah. waaw bëri na lool lool lool te loo koo defaral lu baax aussi mu fayal lu bon. waaw côté mbokk yi sax surtout nag. voilà côté mbokk yi moom surtout loolu moom. dafay dem ba yow sa bopp sax da ngay dem ba da ngay sax man defalu ma kenn léegi yàlla daal lu ma def rek ngir yàlla laa ko defee daal. voilà donc loolu aussi feeñ na ci yow mais macha allah foofu tamit mën naa ne tamit yàlla rek moo lay mën a fay côté boobu ah. voilà léegi tamit euh, lenn moo ma xaw a jaaxal tuuti aussi si yow. Mhm. ci góor bi nga xam ne dafa la sori nga ne sa jëkkër la. waaw léegi looy ciy tiit na ma gis des fois da toog ci kër ga foofu nga mel ni ku tiit wala sa yaram mel ni lu xaw kii noonu. xanaa ah, ah? ah liggéeyam. moo na ay liggéey daal affaire euh, ne loo ciy tiit léegi ma la ba léegi de. maanaam ay affaire liggéey daal liggéey xam nga nit ñi rek. liggéeyam moom wala liggéey bi ñu koy def. maanaam liggéey yi ah ok moom ngay tiit. voilà donc mais quand daal gis naa tamit nit nga tamit boo xam ne moom ci boppam. Mhm. même su nekkoon mu ngi woon ci liggéeyam aussi liggéey bi day mel ni lu xaw a taxaw wala moom mu lay mhm. jàmbat. Mhm, su nekkee ne mu ngi lay jàmbat fu mu nekk nii loolu dëgg la de. waaw parce que liggéey bi doxatul comme ni mu doon doxee. waaw mais quand même jàmbaar la parce que nit la koo xam ne aussi dafa ñeme di ñafe dafa ñeme tamit euh, dafa courageux daal. Mm, mm, mm. waa loolu moo la ciy jàppale aussi parce que moom ci boppam góor la boo xam ne toogul benn place même su nekkee dëgër na aussi mi ngi yëngatu. voilà donc loolu aussi macha allah loolu tamit feeñ na fi bu baax mais dina mës a am liggéey boo xam ne euh, liggéey bu baax la foofu xaw ma nag liggéey bu muy def mais wan na ma daal liggéey bu muy def na. te dina fa nekk kilifa wala mu nekk fa daal loo xam ne daal mën naa ne daal mu ngi sant yàlla. parce que loolu la ma waxoon ci mbiram. voilà léegi tamit euh, lenn nag moo ma xaw a jaaxal tuuti aussi ci yow. ci côté doom. doom bu góor bi danga ko am walaay doomi góor. benn. kooku tamit turam màgg na lool. xaw ma nag nu mu tudd mais turam daal jege woon na Mouhamed de wala mu jege daal koo xam ne daal tur bu màgg la. la. nu mu tudd. Babacar. Babacar voilà kon Babacar rek yooyu yëpp ay tur yu màgg la daal. mais yow sa bopp aussi euh, lenn laa la gisal. mooy yow tamit cat dina la topp cat moom ci ñëpp lay topp mais yow tamit cat moom bëri nga ko. làmmiñ mm-hmm. depuis bi waa ji demee day moom làmmiñ rek moo la topp. Mm-hmm. waaw mbokk yi dañuy wax te puis tamit dañuy séntu ci yow yow da nga am wala tamit euh, yow waa ji mu ngi lay def lu nekk. soo côté goro yi nag laay waxal fu mu nekk nii. waaw parce que ñoom dañuy ne waa ji mu ngi lay jox lu nekk mu lay def lu nekk. voilà donc foofu tamit mun naa ne loolu tamit làmmiñ la. waaw moo tax tamit soo mënee dem ci marabu yi ñu defaral la dara loo xam ne aussi looy sangoo la. pour làmmiñ yi mun a wàññeeku loolu tamit dina baax trop ci yow. soobee yàlla daal donc loolu aussi macha allah loolu tamit soo ko utee dina baax parce que dama gis daal làmmiñ moo la xaw a bloqué tuuti. voilà feebar yi ngay feebar yëpp yooyu tamit mun naa ne ay cat la donc. ay cat la donc làmmiñ rek donc loolu la. parce que soo xoolee même euh, kër googu ngeen am noonu. Euh, même su nekkee pare na aussi am na benn partie boo xam ne pareegul. am na. waaw loolu tamit cat la. waaw loolu tamit cat la loolu tamit euh, moo tax ma ne la sànq. ginaar mhm. bu weex bi il faut nga génne ko sacrifice. ginaar bu weex. voilà kooku soo ko mënee génnee nga bàyyi ko ci kër ga baax lool. ginaar bu weex yi tamit soo ko defee lool lool lool lool lool. Mhm. daf lay dindi lu bëri incha allah dégg nga. tamit mu def tamit ci côté mbokk yi duggante woo ak mbokk yi bu baax da nga mel ni ko xaw a sa bopp. ragal lan. <laughs> waaw coow waaw yooyu yëpp ay làmmiñ la rek waaw ragal làmmiñ loolu tamit macha allah loolu tamit nga éviter ko moo gën daal ah. même xew yi sax doo ci dem non waaw mm-hmm. ah, yooyu yëpp daal dafa mel ni daal ko xaw a arrêté. Mm-hmm. voilà donc loolu aussi feeñ na tamit mu def tamit lekk xam dinañ la ko tere après. waaw dina am ben lek boo xam daawoon nga ko lek mais dañuy dem ba après soit docteur nee la nga wàññi loolu wala nga parce que lu mel ni tension laa fi gis loo xam ne aussi mën na la indil ay problème comme diwlin bu bëri wala parce que loolu tamit gis naa ni dafa bëri ay kii. Euh, dafa dafa bëri ay euh, kii loo xam ne daal mën na la indil ay ay problème daal ci sa côté santé bi. voilà nee na côté santé kii euh, tension bi wàññil diwlin bi wàññil loo xam ne lu gras la. voilà nee na yooyu yëpp dee koy éviter ko waaw ah, parce que gis naa daal euh, ci sa walu santé lolu aussi bokk na ci dal lu mel ni tension. Mhm, voilà donc lolu aussi nee nga baye sa xel bu baax deng nga. nga éviter lolu bon léegi nag euh, su nekké da nga tok so xolé fi nga tok nonu amna lu may ñuróol loo xam ne lu melni jaune la wala lu melni ni euh, laal couleur bu verte. wa jaune ma ko sol. donc ko sol. wala jaune bobu moy woné ni yow xol bu rafet nga am xol bu baax nga am da nga labir da nga labir nek nit ko xamné aussi kuy joxé lek ko mëna joxé lek nga yow macha allah aussi euh, lu am solo la wala timit tamit feeñ na ci yow so gisé nak ma wax la lolu moy jaune bi ma wax nonu parce que dama gis jaune bi am lu bari lu muy firi ci yow lo xamné ne aussi mëna ni non nga mel de caractère yo len rek moo lay mooy ñi nga defaral lu baax yëpp fayuñu la ko. waaw loolu moom dëgg la. waaw loolu nag c'est dans le passé loolu yàgg na. Mm. te loolu aussi mën naa ne euh, dafay nekk loo xam ne daf lay méttitlu des fois. Mm, mm, voilà loolu la daal. moo tax tamit euh, nit nga daal boo xam ne yaa ngi waxtaan ak sa jëkkër mais lu ëpp aussi mun naa ne moom ci boppam aussi dafa nekk nit koo xam daf la comprendre. voilà kooku ku baax la de kooku jàpp ko de. ku baax la te ku mën toppatoo jigéen la daal. Mhm. voilà kooku jàpp ko bu baax. Mhm, mhm. ci kàttanu yàlla te puis tamit del éviter di wax sa ay problème waaw parce que yow loo wax nit rek automatiquement tamit mun na ko traduire neneen. voilà waaw loolu nag ci wàllu jigéen ñi laa lay wax noonu comme exemple nekk ay jigéen nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw kër ga foofu di kii fekk ni dañuy bëgg a xam lan moo fa xew. voilà loolu nak euh, yow yaa ma gën xam. Mm-hmm. yaa ngi koy éviter sax mais quand même gënal éviter loolu. inshallah soko défé dal mën na né jamm né ñoy ko gis tamit euh, jamm rek ngay am ci voilà kon ma lay gëreum di la sant. jërëjëf voilà. voilà légui nak di delluwaat ak yeen di wax ni ba légui émission bi ça continue donc vous pouvez appeler sur le serveur 88 628 71 71.

voilà donc lu njëkk a taxaw mooy ci wàllu li ñuy wax wërsëg bu yaatu boo am boo xam ne aussi mun naa ne tamit macha allah yaa ngi sant yàlla bu baax mais nag dafa ma won carrément lu mel ni kër wala terrain nee na nag su nekkee am nga ko baax na su nekkee tamit amoo ko aussi xamal ne ki nga nekkal aussi moom ci boppam dina ci taxaw. lu mel ni kër wala terrain nee na di nga ci nekk. Mm-hmm. voilà neen nag foofu da ngay génnee sarax bi nga xam ne moo fi feeñ nga saraxe ko soo ko defee tamit dina baax lool sarax bi ngay mm-hmm. génnee nag euh, mooy lu ñu wax yàpp bu ñoru kooku soo ko mënee génnee 500 grammes baax na 500 cent d'accord waaw cent grammes de viande moom ngay jël nga jox ko koo xam ne aussi mën naa ne ku ko yelloo la voilà mu def tamit yow tamit yaram bu lay metti soit biir bi mu am daal loo xam ne dafa ci mel ni daal luy jam wala luy metti voilà nee na nag su nekkee dafay jam kooku tamit euh, maa lay laaj ndax demoon nga ci docteur yi. demoon nga fa. Mm-hmm. defuñu analyse de sang ci yow. def nañ lépp. def nañ lépp. Mm-hmm. ah foofu de laa gis lu lay faj soxna si allo. Mm-hmm. waaw foofu laa gis daal docteur yi laa gis daal ñoom hôpital laa gis daal ñoom seen bopp sumit euh, suñ la jàppale dinañ la faj bu baax aussi parce que won na ma daal ay analyse en même temps aussi loo xam ne lu me nekkoon sa bas ventre la wala yu demee noonu voilà nee na nee na loolu tamit ah ñu ngi koy faj ñu ngi koy faj ñu koy traité wala ñu koy faj ñu ngi koy traité voilà neen na kon traité ko bu baax soo ko traité moom di tane ci kàttanu yàlla parce que won na ma daal euh, foofu daal suñ ko suñ la jàppalee foofu di nga tane bu baax. voilà léegi nee na tamit euh, lenn aussi am na mooy au niveau ci côté lu ñu wax côté ku góor koo xam ne daal macha allah kooku tamit euh, mu ngi doon sant yàlla bu baax kooku tamit dina nekk góor boo xam ne ku lay jege la trop. Mm-hmm. ci côté mbëggeel laay wax de. sama voilà neen nag moom ci boppam dafa nekk nit koo xam ne moment yi ñu toll nii dina am tuuti problème d'argent wala tamit mu nekkoon ci dara. Euh, mu mel ni daal affaire yi ci côté xaalis ñu xawoon ko yoreel wala tamit affaire am xaw dëgër tuuti. dëgg voilà neen nag foofu nag dama ma koy waxal su nekkee mi ngi sa wet. Mm-hmm. dama ma koy waxal moom ci boppam na génne sarax bi nga xam ne su ko defee aussi ay mbiram dina baax lool na génne ñetti ndabu laax kooku moom c'est forcé mu def ko. ñetti ndabu laax mu def ko ba noppi su paree ci ñetti ndabu laax loolu ñetti yooyu euh, dafay jël ndoxu raxasu bi deuxième ndoxu raxasu mooy suñu paree am na ñuy am ñaari ndox yoo xam ne dañ koy raxasoo xale yi benn bi ñuy lankale boobu lay jël mu def ko ci benn butéel mu def ci xorom tuuti rek léegi chaque matin suy génn daf koy raxasoo rek waxuma la ko mu def ko ci yaramam yépp mais daf koy raxasoo rek mu génn kër gi ah lu ci des après mën na ko tuur ci buntu kër gi benn yoon rek la koy raxasoo benn yoon doom neen su ko defee li nga xam ne mooy problème moom moment yi ñu toll nii nee na loolu tamit yàlla mun na ko sotteel daal mu sotti incha allah dégg nga voilà nee na nag lenn tamit am na mooy yow sa bopp danga nekk nit koo xam ne aussi lépp lu dëgër rek yow da ngay bàyyi lépp loo dugg mu dëgër yow dafay mel da ngay retiré wu yow noonu nga mel voilà donc loolu aussi wan na ma ko bu baax ci yow nee nag sa jëkkër aussi euh, lenn aussi am na xaw ma nag yow yaa fiir mais daal wan na ma daal côté fiir de ci seen diggante. moom fiir na de. kon moom la. Mm-hmm. ah kon nag moytul. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. voilà fiir na te puis tamit macha allah moom nit la koo xam ne jigéen yi aussi dañ koy topp. baa xam nga loolu. Mm-hmm. mune mba mbaa xam nga loolu xam nga ko waaw su nekké mom fiir mom daf lay fiiré mom tamit jigéen nañ koy top parce que mom nit la ko xamné aussi ci walu liggéeyam loolu motax lig euh, jigéen yi ko mm-hmm. voilà donc euh, foofu tamit euh, mën na né ñaari parti yépp la même yow tamit da nga fiir de voilà kon nak ñaari parti yépp la xam nga yow da nga ma ne moom fiir mais yow ya fiir yow <laughs> yow yaa gën a fiir yaa may dégg oh, ah moo tax it de moo tax man doon ma renvoyé la bal bi parce que j'ai vu sa jëkkër macha allah mais quand euh, yow yaa gën a fiir parce que yow doo bëgg sax moom muy euh, dugg ci ay mbir yoo xam ne yow xamoo ko. waaw oh, nangu ñaareel ah, tàmm nga ko. Mhm. waaw même su nekkee ñaareel nga tamit euh, xool nga yore de wala yore woo xool. <laughs> <laughs> ah ah loolu de la ma wax nee na daal yow da fiir voilà léegi tamit lenn ah. nangu naa ah? nga ko voilà d'accord léegi tamit euh, lenn aussi am na ci ay ayloo bi xawul woon am tuuti problème wala yow yaa indi woon problème bi. am na problème yow yaa indi problème bi wala moom. waaw ah, léegi lan la bëggoon ci ay aayaloo bi toog foofu wala wala toog ay fan yoo xam ne du la gis wala yow doo ko gis hmm. allo. dinaa koy gis de. di nga ko gis mais ay aayaloo bi amoon na problème de parce que loolu la ma woon fii. ci début bi. ci début bi voilà très bien voilà. Mm-hmm. waaw mais quand même euh, lenn aussi am na soo soo toogaatee tamit ni mu doon def ci début bi noonu lay defaat de. ah wax naa la ko de parce que li tax mu feeñ fii loolu tamit euh, mun naa ne tamit lu ma leer nàññ la yow yaay ñaareel mm-hmm. kon nag bàyyi ci xel bu baax li ma lay wax parce que yow tamit da sonn de ci côté boobu ay wujjante yooyu da nga ci sonn lool du question nag dara moo tax ma wax la ko de mais dafa feeñ fii de nee na ma daal da nga sonn trop ci ay wujjante yooyu ay muy dem ngay voilà yooyu moom dafay dem ba après yow sax bopp sax dafa ubbu voilà dafa ubbu te puis yow tàmmoo sax di wujjante xaw ma nag lan moo la dugal ci ko am euh, jabar mais quand même tàmmoo loolu de ah bëgg lan wala dogal yàlla. ah ok voilà d'accord loolu moom mënuma ko bañ dogal yàlla moom loolu moom kenn mënu ko bañ mais quand gis naa daal xool bi des fois day mel ni luy xaw a xëccu parce que sa xool bi day xëccu rek. yow waa ji saa su demee di wuj di euh, di aye fële aussi xam fu muy aye mais fépp fu muy dem aussi mën naa ne sa xel lu toog voilà loolu laa fi gis daal voilà donc euh, jour yi soo ko mënoon wàññi sax da koy wàññi <laughs> ma ne jour yi ngeen di ayante soo ko mënoon wàññi di ko wàññi. allo. waaw waaw loolu la ma wax. te na nga jóg sa yaram bi aussi. waaw d'accord. voilà na jóg sa yaram bi def ci ay ñaan protégé wu surtout protection. Mm-hmm. voilà incha allah. Mm-hmm. voilà kon maa lay gërëm di la sant. merci jërëjëf voilà donc di delluwaat tax yéen di wax ni tamit góor ñi tey euh, wootewuñu noonu mais euh, si émission bi ngeen bokk aussi donc euh, affaire yi comme que yéen a ne parité la aussi góor ak jigéen ñoo war a nekk égalité donc 88 628 71 71 allo yi. salaamaaleykum. ah kii de sëñ bi dégg nga ma de ça va def. Ah, naka yaram bi. alhamdulilah. léegi may ma tiré carte yi allo sëñ bi. waaw ah, jigen bi nga bëgganteel mom ah, luy sa problème ah mom wala sa bop dafa ubu ci moom. xal bu baax de. wa man jigen bi ma wa waaw. jigéen bi ma bëgganteel damay xel ñaar est-ce que ko jox na waaw wala déet. xal bu baax dégguma la. dama xal ñaar ndax bu ma proposer mariage dina ko accepter wala de ah motax ngay dute. waaw lenn nag dinaa la ko yëgal de mooy euh, su nekkee ci moom rek nga yem ah. mën na baax su nekkee na yemoo ci moom moom mënul baax ah. foofu nag parce que nu ma gis tamit euh, yemoo ci moom rek ana ana ñeneen yi dafa am ñeneen ñu ma proposé allo dafa am ok voilà waaw

Ah. mais quand même euh, da ngay def sarax bi nga xam ne moom laa lay wax aussi soo ko defee yàlla mën na rafetal mbir yi. sarax bi ngay def aussi mooy na nga génnee euh, lu ñuy wax benn ndabu laax. waaw moom rek ngay génnee nga ñaan sa soxla yépp après nga sacrifier ko. moom daf la sori. Ah? ndaw si daf la sori. ndaw ki ngay wax noonu dañ la ko proposé. waaw. waaw instant yii toll na ma demee man dama ko dégg ñoo xamante sëñ bi waxal bu baax ñu mën a jokkoo. ma ne waaw pour le moment jotu ñoo xamante man ak moom. waaw. sori na mu waaw moom nag laa lay wax kon nag jàpp ko bu baax ah, parce que ki ñu la proposé bonul ku baax la mais na yow sa xel day nekk ci ñeneen yi man loolu moom a jaaxal. waaw sama xel keneen ki mu nekk nag kooku moom. <laughs> mën na baax waaw lu tax loolu lu tax ñooñu proposé la ba pare sa xel nekkaat ci keneen. waaw mais loolu mën na nekk quoi xam nga bu ñu la koo xam ne xamoo ko peut être ak nga xam ne nii yaa ngi xam nga. waaw xel mën na gën a nekk ki nga xam quoi da nga koy gis toujours. voilà na mu lay na la bëgg tooñ rek mais xam naa ni kii nekk sa xel kooku moo nekk sa xel mais tamit ki ñu la proposé bonul ku baax la mais nag da nga ko miinul loolu la ma woon fii. waaw effectivement mais nag soo góorgóorloo aussi ki ñu la proposé ku baax la. mais nag yow ki nga nekkal kooku moo nekk sa bopp. Ah. ki ngay nekkal moo nekk sa bopp mu nekk nii. waaw. voilà léegi nag euh, bàyyil ma xoolal la kan la ci ah. ok allo sëñ bi. waaw. man daal xam nga lan la ma woon. Ah. mooy ki nga xam ne moom ngay waxtaanaat ku góor kooku la ci ñoom. ku góor. waaw. waxtaan bu ma dégg ku góor hmm? waxtaan kon nag di ci waxtaan ak ku góor du yàgg dara kooku moo baax. ku góor. waaw te jigéen bi mën naa la wax teewam de. waaw ah, nekkee dafa xeereer walla xees kooku moo baax. kan la ci. non pour moment man ki moom dama ko xam ko mën naa la mosuma koo gis. mosoo ko gis. ki la ko proposé góor la wala jigéen. ah. ki la ko proposé góor la wala jigéen. ki ko proposé jigéen la. jigéen la. waaw. ah man daal ki la ko proposé man daal kooku laa gën a gis ki nga xam ne proposition la kooku moo gën a baax de. Ah, wax naa la ko de ki sama xel moom mënta sotti ah ki nekk sama xel moom mënta nekk ah même man daal ki gën laa lay seetal mais duma xool ki nga bëgg mais ki nga xam ne moom nga soo nekkee moom jàmm ngay am ah. ah ndax li nga bëgg ci moom kooku laa lay wax ni moo baax. nga ma suteel noonu. ah. ka nga ma suteel turam. non turam moom yàlla moom ma ko mën a jox ma ma wax la ko mais damay jékki-jékki rek wax tur mais soo xoolee turam am na A walla M ci biir tur bi. ah. ah? allo. am na am na. am na na am na A. ñoom ñaar ñëpp am na M ñoom ñaar ñëpp. waaw ah kon nag yow yaay xool mais daal li mu la wax daal mooy ki ñu la proposé kooku moo baax. Ah. waaw xoolaat ci beneen mbir xool keneen ki. Ah. <laughs> kon gëmoo ma. keneen ki waaw. kon gëmoo ma li may wax. Agri. ah, ah naa la kii moo baax nga ne mën naa xoolaat ci keneen ki kon naa la ko xoolal rek. waaw. waaw léegi kon bu fekkee sa numéro mën naa ko am dina ma. voilà sama numéro da ngay téye ligne bi registre bi jox la ko incha allah. waaw ah, d'accord. voilà.

allo sëñ bi allo. waaw voilà li njëkk feeñ fii aussi mooy côté xaalis boo xam ne soit boo war a jot la nga jot ko ba noppi wala nga jot ko mu desaat mais daal wan na ma daal mbirum xaalis. yaa may dégg. wala waxu xaalis nee nag su nekkee am na nee na na nga génne sarax bi nu mu gën a gaawee juróom-ñaari lee kaye mm-hmm. juróom-ñaari soow waaw les cahiers moom ngay génnee nga ñaan sa soxla yëpp nga sarax ko koo xam ne aussi na nekk set taalibe ah. voilà nee na incha allah soo ko defee dina baax nee nag yow sa bopp aussi yaa ngi sant yàlla de sëñ bi. waaw na ma yaa ngi sant yàlla bu baax. Mm-hmm. am na. waaw ah li ma gis de laa lay wax nee na ma daal yaa ngi sant yàlla te itam. ah, ah? ah am na. voilà nee na nag tamit voyage bi yaa ko doon def. Mhm. wala danga koy waaj. Euh, bàyyi nga ko. Mhm. léegi nag dinaa la wax sarax bi nga xam ne soo ko defee aussi euh, voyage bi di nga ko dem. Mhm. da ngay génnee dàllu carax. néew ma la nga sol ko mais da nga koy jëre nga saraxe ko. dàllu carax. soo paree ci dàllu carax yooyu tamit da ngay génne waat lu ñuy wax légume. comme ay chou da ngay génnee ñetti chou. Ah waaw maa ngi déglu ñetti chou ñetti ñetti pomme de terre ak ñetti carotte yooyu ngay jël nga boole lépp nga jox ko koo xam jigen jigéen buy dox ci yoon la suba heure ko defee nag mais nag da ko def suba teel bi quoi. matinal ah. nee na incha allah soo ko defee tamit dina baax lol lol lol lool. nit nga nag boo xam ne yow liggéey nga xam daal parce que loolu la ma carte bi wax. may dégg waaw liggéey nga xam donc loolu la ma donc moom dem na donc maa ngi koy gërëm di ko sant allo oui allo. allo. soxna si na nga def. naka yaram bi. waaw alhamdulilah. léegi may ma tiire carte. allo soxna si. waaw man voilà donc li njëkk feeñ ci yow mooy euh, lu mel ni loo bëgg a def wala loo xam ne yaa ngi ci mais dafa mel ni daal loolu aussi yenn saay mu dox yenn saay du dox. ne nag da nga génnee saraxu ñetti ndabu laax yi ni mu gën a gaawee ah. voilà léegi tamit mu def tamit sa xol neexul noonu soxna si parce que dafa mel ni daal au niveau relationnel wala ci côté mbëggeel am na yu bëri yoo xam ne daal daf la baare quoi wala mu mel ni daal lu la soxna si yow laay waxal de. waaw man voilà nee na nag côté boobu aussi dafay dem ba yow da ngay jàmbat wala tamit nga mel ni daal nit koo xam ne euh, ci côté mbëggeel euh, doxul comme ni nga ko bëggee ko mm-hmm. nee nag foofu da nga war a génnee sarax bi nga xam ne euh, nu mu gën a gaawee nga def ko kooku tamit incha allah soo ko defee dina baax lool lool lool sarax bi nag du dara lu dul benn paañ ngay génnee sër mooy sër daal. benn paañ sër. waaw sër boo xam ne waddoo nga ko nga jël ko rek nga defal ko mu baax après nga saraxe ko incha allah. mun nga ko jox ah. day doon sër bu boo xam ne rek mun naa ne daal bu baax la nga jël ko rek saraxe ko incha allah soo ko defee aussi dina la dindil lu bëri daal parce que gis naa sa mbir neexul daal noonu carrément parce que da mel ni kuy souffrir wala nga mel ni daal nit koo xam ne am na loo bëgg ci côté boobu côté mbëggeel mais dafa mel ni daal san mm. ne va pas du tout. ah dëgg la ah. Mm-hmm. waaw yenn saa yi xol bi du neex daal parce que dama gis loolu carrément. Mm-hmm. voilà léegi tamit rab bi ñu lay wax mbaa wax nañ la ko feneen. rab. rab waaw mbirum rab de laa fi gis. waaw mos nañu ko mos nañu wax yàgg na. nag xam nga rab bi dañ ci nit mais quand même euh, lenn tamit dinaa la ko wax mooy tamit soo demee ci ñi nga xam ne ñoo la koy mën a fajal aussi baax na parce que xam nga rab day yàq lu bari parce que loolu laal mu yàqu te loo dugg tamit du sorti en plus tamit euh, ci côté mbëggeel aussi nakaru xol laa fi gis donc yoy dal euh, bari na ci yow lool. Mm-hmm. mu def tamit couleur bo xam han ah? waaw man deug na wa voilà mu def tamit benn couleur bu marron bu nek sa wet wala beige ba solo ko. marron wala beige. waaw fauteuil dafa marron. marron marron voilà donc marron boobu mooy wane ni cas de difficulté yi nga xam ne danga ko am carrément. te da nga nekk soxna boo xam ne daal mun naa ne tamit pour nit di la dimbali yombul. voilà yow lépp looy lépp looy am yow yaa koy kiiwal sa bopp. yaa mhm. ciy jóg. Mm-hmm. voilà léegi tamit euh, lenn aussi am na mooy au niveau ci góor bi nga xam ne daf la sori woon wala te mu nekk góor boo xam ne daal da bàyyante kooku anam wala mu sori la côté mbëggeel de laa lay wax nii de waaw mosoo am kenn koo xam ne daf la trahiroon wala tamit dafa dem ba ci biir daal seen diggante doxatul allo. allo waaw man am góor bu la bàyyi. kon yaa ngi nekk ak moom ba léegi. waaw. kooku sa jëkkër la. waaw. ah kon nag moytul de. Mhm. moytul de nga. waaw parce que li ngeen di neexoo bariwul de walla am na. rëgg la li ngeen di neexoo bariwul de parce que lenn tamit dinaa la ko wax de. soit yow ngay découragé wala moom wala wala moom muy découragé mais dina ci am kenn kuy découragé bi baa nekkul sa wet foofu. non non nekkul ah, kon jàmm la parce que dina am découragement buy am de te découragement bi nag ci sa côté lay doon ah. ci sama waaw parce que da ngay dem ba doo mënati wala nga dem ba ci biir nga gis loo xam ne neexu la ci sëy bi. par exemple par exemple rek ay wujju wala ay jigen yo xamne dañuy dugg sa sey affaire bi daf lay metti. hmm mhm, mhm. ah loolu de la. mën na nekk la mais gisuma ko gisuma teguma ci sama bët mais xalaat naa ko daal. ah man de lépp lu mu wax ci seet bàyyi ci xel parce que li gis fii man yow yaay dem ba ci bir yaay décourager sa bop parce que di nga gis lo xamne après yo sa bop dang ci bëgg a mhm. te ah. wala mun na nekk wujj mun na nekk jigéen bu koy topp soxna si. waaw parce que nee na loolu ñàkkul de parce que soo gisee ni muy incarné woo ci yow wala ni muy jëfantee ci yow rek yow sa bopp da ngay dem ba ci biir da ngay mel ni comme nit koo xam ne daal dangay ngay dutewu dëgg foo ko fekk mu ngi tàng wala yow mu lay tàngaloo sa xol. dëgg la ah loolu laa fi gis. léegi loolu lu koy def. xol bu tàng boobu muy def. Mm. ah jikkoom la jikko jikko dafa am ci nit jikkoom la. dëgg la. Hmm? Mhm, mhm. jikkoom la de jikko nga baal ma nag jikko bi moom xam nga ku nekk ak sa jikko. waaw mais man jikko bi ma gis fii ci sa waa ji jikko la boo xam ne moom kooku mënul changer. waaw mënul changer donc loolu la daal parce que loo ko defaral mu ne la nit neexul. wala loo ko tegal tamit mu ne la nii neexul wala tamit loo ko wax tamit am nga rek mu indi ci wax. voilà. xam nga loolu da ngay dem ba yow sa bopp sax da ngay ne est-ce que maa ngi sëy wala sëyuma. wala sëy bi est jigéen dugg ci wala dugg na ci voilà loolu laa fi gis na voilà donc loo wax rek mu boole ci wax. yow daal waroo wax. ah. dégguma la. wujj bi dañ ko gis. waxal bu baax soxna si. wujj bi. waaw. da ko gis wala. ah wan na ma daal wujj mais daal wan na ma tamit jigéen bu ma nekkal wala jigéen bu ko jege trop sax. jigéen ko trop. waaw. Hmm. loolu la ma wax de. fu mu lay tàggu di dem mu mel ni comme koo xam ne amul jot. ah. moom fan la lay faral di tàggu di dem. waaw des fois daf may tàggu day dem de dem ci ay soxlaam de. ah. daf may tàggu ne ma la jëm. ah kon nag kon nag soxla yooyu moom bés bu feeñee moom xam naa ni moom li may wax moom mooy loolu. ah soxla yu rëy la de. soxla yu rëy la. kon léegi ci la bokk. doy na waar de. ah wax naa la ko daal. soxla yo daal. mën ma. Mhm. ah. ma daal wax ma daal lu leer. mën daal wax naa lu leer nee naa daal soxla yi muy dox. Mhm. ay soxlaam lay dox la bokk. jigéen ci la bokk. Mhm. waaw waaw man wax naa lu leer yaa ma déggu. Ah, jigéen ci la bokk. waaw jigéen ci la bokk te bés bu dee leeree nag moom damay ragal mu wutal la wujju. Ah, nañ ñoom ah waaw. yàgg nañ. ah. yàgg nañ ñoom ñoom. yàgg nañ kañ du tey. yow mosoo ko soupçonné. waa en fait des fois mu léegi nag lu tax yow doo ci taxaw wala. ma taxaw ci mu bañ a am. ah am na kañ am na. dinaa la wax preuve bu leer. ak wax bi. waxu téléphone bi lan la woon. nga ko koy waaw mos ah, naa wax ak moom nga ko téléphone. da ci téléphone bi. Mm, dama gisoon benn appel. jigéen. waaw. kon jeex na. kooku la. ah man kañ wax naa lu leer yow kañ yow yaay bañ a dégg rek mais wax naa lu leer. dégg naa loolu. kon nag jàppal loolu. Mm-hmm. te nga jóg sa sëy bi mu bañ a voilà day am yu muy def. ah jigéen bu bëgg a dugg sa sëy kañ moom xamal ni dina jéem a def dara pour dugg. dëgg la. waaw ah, jeex na ko kañ na mu la wax rek firndeel boo xam ne bu leer la en même temps su ma nee nga jóg sa bopp. Mm-hmm. parce que ñoom tamit dañuy bëgg a dugg. pour yàq mm-hmm. wala dugg pour ñoom tamit seen bopp comme ni nga duggee rek. Mm-hmm. loolu la parce que moom dafa da jékki-jékki rek changé sa waaj dafa jékki-jékki rek di génnee ay jikko yoo xam ne yoo xamoo ko. waaw yenn saa yi nga wax mu bàyyi la fa dem yoonam mm-hmm. waaw yenn saa yi mu guddee àll mm-hmm. ah loolu la de man de loolu laa gis lu am la kon maa lay gërëm di la sant dëgg la lépp dëgg la ah noonu la naa lépp voilà kon maa lay gërëm di la sant waa kay merci beaucoup jërëjëf léegi si numéro téléphone tam soxla naa ko yow waaw léegi da ngay téye ligne bi rek régisseur bi jox la ko D'accord. D'accord. voilà mbokk téléspectateurs yi émission bi jeex na ni fu mu toll nii maa ngi gërëm aussi mbokk yi nga xam te ni ngi doon woote fii te mënuñu dugg aussi maa ngi di gërëm bu baax di leen jégalu aussi di gërëm aussi mbokk yi nga xam te ñoo fi doon woote aussi bu baax a baax a baax di wax ni tamit euh, maa ngi gërëm aussi mbokk nga xam ne ñooy malaat aussi di seetaan émission bi aussi maa ngi di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yëkkati ba ngeen jóg ci jàmm ak salaam euh, di nuyu tamit mbokk yi nga xam te ñoo nekk ci prison yi aussi di seetaan émission bi aussi maa dimbali ba ngeen génn ci jàmm salaam donc maa ngi di gërëm di leen sant aussi euh, di leen wax bonne fête de euh, de tamxarit maa ngi di nuyu bu donc ba jeudi Inch'Allah, à partir de 14h30 jërëjëf.